الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسلف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي jullit دي ñoo لين دي نوي nuyu bu baax ñoo ngi leen di ziyaar bu baax a baax di ak ñi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñoom bi ñu seetaan di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne ci lanu ne di ñaan sunu boroom mu defal nu kàttan ak ndimbal ba nu yàggale ko jàmm ci ni mu nu ko digale te mboolem ngëneel yi nga xam ne digge na ko ci mu defal nu ko ci ak mbaaxam di ñaanal Mawlaana Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg ci lool te ànd ko wér mbokk yi ngeen ko xamee daayira Muxaddamatul Xidma di ànd ak yéen ci ay waxtaan yu am solo ci ndigalul sëriñ bi tey nu dellu si fas yéene àndaat ak yéen ñu bahwa ko baaxoo defee ci jataayu koor gi ak ci lu dul weeru koor di jàngat ak yéen ay bind yoo xam ne day ay ji sunu dund ci sunu diine ak sunu dundin tey nu fas ànd ak yéen ci am am solo boo xam ne dafa jëm ci sunu diine waaye dafa ànd ak sunu dundin itam ngir sunu dund mën a ñëw nu jëflanteeg moom jëflante ga ca war nu fas yéene waxtaane ak tawxiid waaye nag ñu jëmale ko ci ni nga xam ne sunu jàmbaar ji ni mu ko jagoo ak ni mu ko joxe woon yitte mooy yitte ji nga xam ne moom la Seexul Xadim joxoon taw tawxiid a ngeen xam ne tawxiid lenn la ci lu mëntu ñàkk ci ab jullit waaye lenn la sax lu mëntu ñàkk yitte ji nga xam ne moom la ko sëriñ bi joxoon loolu la ñu fas yéene waxtaane fas yéene koo ànd ak nag sëriñ Mame Mor Hamdi mi nga xam ne moo nekk ci sama wet muy koo xam ne yaakaar naa ne du jar ñu koy xamle ndax barab bii miin na ko waaye mboolem barabi xam-xam yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci dëkk bii ak furul dëkk bi itam miin na ko ñi nga xam ne itam ñoom la xam-xam ñor ñu di ko gëstoo ko topp itam xam nañu ko bu baax a baax muy kenn ci doomi dëkk bi di borom xam-xam di kenn ci ñi liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam bokk ci waa Rawdu Rayaahin loolu rek buñ ci waxee dana doy sëkk ci ñu xam ne thème bi ñu fas yéene ànd ak moom insha allahu taala danañ ci am lu xam ne danañu mën a fajal suñu mer ci wàllu boobu kon thème bi ñu waxtaanee ci ñeenti tomb rek la koy séddale mooy ci njëlbeen dana ñëw ci ma mooy jiital dara loo xam ne day jëm ci ngir yow miy déglu mu war a dugg ak yow ci thème bi nga man a xam ca dëgg-dëgg fi mu bëgg a jëm ak yow ba ubbi la ba nga xam ne li muy wax ci tem bi da nga mën a xam ca dëgg-dëgg li ci jublu loolu mooy muqaddima bi nga xam ne fas na ko yéene jiital ci waxtaan wi ngir laytaayee ko waxtaan wi ak jubluwaayu waxtaan wi bu noppee itam dana ci teg wàccuwaay bi nga xam ne moom la tawhid am ci lislaam muy wàccuwaay bu rëy waaye wàccuwaay bi nga xam ne itam moom la tawhid am ci sëriñ bi muy wàccuwaay bu rëy bu noppee itam dana ko jeexale nag ci ñaari tomb yu mujj mooy dëgg-dëgg thème bi mooy yitte ji nga xam ne moom la sëriñ bi joxoon tawhid ci jëmmi boppam ci am njàngaleem ci aw yarinam waaye jeexale ko nag mujjantal ay ndénkaane yu jëm ci wàllu tawhid tëje ko thème bi kon loolu lañu fas yéene waxtaane tey insha allah sëriñ Mame Mor ñoo ngi lay jégal kàddu auzu billahi mina shaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيوغي نيوغي نيو بو باخ مبوكي جوليدي ak mbokk talibé yi fépp fu mëna nek di tambulé nuyo bobu nak ak ziaré bi ci مولانا شيخ محمد المنتقى mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi jiite njaboot bi ñu koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi dolli ko kattan dolli ko wér ba liggéey bi mu fas yéene liggéey sëriñ bi mu àggale ko ni mu ko bëggee te ànd ko njaboot gi yëpp di nuyu bu baax waa daayiratul Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg ci barab bi ñuy taxawee barab bi seen kem kattan te jotaay yi bokk ci nga xam ne dañ koy amal rek ci ko dundalee barab bi nuyoo boobu ñu leen ci nuyu rek ñu koy tàmbalee ci ki ko jiite suñu sëriñ suñu nijaay sëriñ Afia bu sol moom mbooleem mbokk yi nga xam ne yëpp rek ñoo ànd liggéey bi ñu ñaan suñu borom kattanal leen te fay leen yu bari ci liggéey bu am solo bi nga xam ne rek ñu ngi koy liggéey ci barab bi. jotaay yi di am solo yoo xam ne rek euh, mboolem ñi mii barab bi mii ñu ko fi mu doon jotaay yoo xam ne dafa dugg rek ci li nga xam ne dañ koy ganalee weer bi. ndax xam ngeen ne Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waxoon na ne weeru koor li ñu koy ganale mooy ay jëf yu baax mooy ay topp yàlla mukaraman bi xelam taati wa sadab di nuyu bu baax mboolem mbokk yi nga xam ne rek ñoo fi teew ñëpp kilifa suñuy mbokk taalibe yoo ne euh, baaxoon ñu ci barab bi ci waxtu wi sëñ Xalil ni ñu ko waxee rek tomb bi moom tomb la boo xam ne jullit ñëpp rek ñoo ci bokk yam ku nekk mën a na ko waxtaane te mooy tawhiid waaye wet gi ko jëmale tey nag mooy yitte ji nga xam ne Cheikhul Khadim joxoon na ko tawhid muy itam bu am solo boo xam ne ni nga ko waxee rek fekk ci tur wi ginnaaw dafa doon loo xam ne mënta ñàkk ci dund jullit bi kon loolu rek solo thème bi feeñ na ci foofu ni ñu ko fas yéene waxtaanee mooy noonu ko suñu xalit waxee bu ñu tàmbalee ci wax ci lislaam ci boppam rek ci tomb bu njëkk bi ñaareel bu ñuy wax ci tawhid nag wàcc wàcc am ci biir lislaam bi ko sëriñ bi joxoon ñetteelu tool bi nag ci dëgg-dëgg waxtaan bi nga xam ne nag moom la sëriñ bi joxoon tawxiid yitte jooju nag xëy na buñ koy seet mën nañ ko seet ci barab yu wuute mën nañ koo seet ci nuñ ci daa soññee taalibe yi mën nañ koo seet ci ci yaxal moom sëriñ bi mën nañ koo seet ci lim ci ay ci ak dundam buñ ko toppee ay xew-xew ay mbir ak ay tolluwaay yoo xam ne bi mu ci tollee doxee na ca doxin woo xam ne tawxiital feeñ na ci ak it nag xëy na rek loolu Euh, ni mu ni mu jeexitale ci ci biir ci biir ci biir njaboot bi loolu lépp mën naa dugg ci te jëm di xam bu ko defee nag ak li ñuy tëjee waxtaan euh, ci tàmbali bi rek am nañu wax ne xam ngeen diine lislaam bi ñu nekk moom ni ko ñëpp xamee mooy yeneen boobu nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala joxoon sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu indil ko mbindeef yi indil ko nit ñi ak jinne yi mu doon yeneen bi mujj ci ci yeneen yooyu suñu borom daal yónni ay yonent képp ku fi ñëwaat ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ci biir yonent boobu lay ñëw di ko fàttali ak di ko yeesal waaye bu ni même dootu ñëwaat ginnaawam mu doon boo xam ne bi mu fi ñëwee suñu borom xam le na ne bu dul boobu kenn dootu ko ci yàmm nangu kon loolu rek fësal na lislaam jooju nga xam ne ci la ñu nekk ñun ñëpp diine lislaam bu ñu ko waxee rek am na ñetti xaat yoo xam ne moom la ñuy boole lislaam yi nit ki doo ko si am na lu ñuy woowee iman am lu ñuy islaam am lu ñuy woowee ihsaan euh, iman mooy gëm yàlla ci sa islaam mooy di ko jaamu ci say cër ihsaan nag mooy di rafetal gëm googu ak jaamu googu ñett yooyu la ñuy boole lislaam yi nit ki doo ko mat loolu xam ngeen Yonent bi sallallahu alayhi jàngale na ko ci ay barab yu wuute ba ci xadis boobu ñoo xadisu Jibril nga xam ne Sayyidina Omar radiyallahu anhu moo ko nettali ne toog nañ gis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba yàgg am jëmm ju ñëw koo xam ne bi mu ñëwee mi ngi sol yére yu weex amee karaw bu ñu ko gisee it xaw nañoo jaaxal tuuti ndax miinuñu ko ci dëkk bi xam nañ ne kon dëkku ci dëkk bi waaye ni ko gisee it niru wuñu ku jóge fu sori ndax yére yi ci misaal la rasul deful dara gisuñ ci moom daal ay jeex ci ba ak si yonent bi saa sallam sukk ci moom sukk ay bëti oomam mu jaar ci turu yonent bi saa sallam ne ko iman mooy lan yonent bi ne yi ba mat hmm. nee na bi mu ko waxee ba noppi waa ji ne ko wax nga dëgg ginnaaw man na jaaxal na ndax ñu ngi koy laaj bi mën naa ko wax nga dëgg kon daa mel ni ñu koy laaj xam na ne ko léegi lislaam mooy lan mu liwal ko juróomi mbir ne ko juróomi yi lay boole lislaam doon mag mu ne ko ixsaan mooy lan mu leeral ko ne ko mooy nga gëm yàlla di ko jaamu ba mel ne yaa ngi ko gis sa xam ne boo ko gisul ñu lay gis nee na mu laaj ko ci gis pénc laaj ko nag ginnaaw ñu ngi dem bi mu demee nee na ñu ne teg nañ nekk yéen a ne leen ni ne ko ndax xam ngeen kii kan la ñu ne ko yàlla ko yonentam dañoo xam mu ne leen jibril la dafa ñëwoon ngir jàngal leen seen diine ñu ci ne kon diine lislaam ñett yooyu la ñuy boole mu doog mat islaam ak ihsaan xam ngeen yooyu sëriñ bi bind na ko lu bari wan tabihu fi anna diina allaahi aqsaamuhu diinun bila shibaahi awaluha al imaanu wal islaamu baadahu al ihsaanu laa tanamu ñett yooyu fes na lool ci mbindum sëriñ bi lu mu koy fesal ngir bëgg a wane ne diine nit ki munta mat lu daa boole ñett yooyu yëpp ñett yooyu sëriñ bi leeral na ko benn mu nekk mu wax ci jullit di jaar ngir man koo xam ak mën koo am xam le ne iman bu wér ñu ngi amee ci is ñu ngi amee ci tawxid lislaam bu wér faaw ñu ngi koy jaaree ci fiq ixsaan bu set tamit ñu ngi koy jaaree ci tasawuf fa awalun yasaq bi tawxidi wa saani bi tafaquhi alxamidi wa sixatu saalisi bi tasawufi fal jamo waajibun bila tawaxufi ni ñett yooyu la nit ki di boole doog a mën a am ñett yu ñett yooyu muy lislaam bi nga xam ne mooy lislaam gu mat sëkk daa di wax it ne iman islam ak ixsaan solo si nga xamne amna ko ci diine nit ki su doon l'islam dafa nek jëmmi doomu aadama ju taxaw ñu man ne ruh gi ruh nga xamne mënu ci ñak moy iman ci moy iman bu dé l'islam néna moy mooy jëmmi yaram wi bu doon nit ku taxaw yaram wi moy l'islam ihsan nak moy mbum mi nga xamne mom lay sol ba ko ko xol man ko xoolaat ka annama tawhid fi zal hali ruuxun li diinillahi zil jalaali wa jismuhu lislaam wal ixsaanu libaasuhu allazi bihi yazdaanu te xam ngeen ne doomu aadama bu ci ruu nekkatul moom dootu tudd dootu tudd nit leneen lay tudd lu dul nit kon imaan bu ñëwut njullit gi mënut a baax loolu moom mooy li wér te imaan ci tawxiid lañ koy amee ñaareel bi di islaam it nga xam ne ci fiqh lañ koy amee nee na mooy yaram wi ruu kese it bu fi nekkee te yaram newu fi kooku du tudd nit leneen lay tudd kon jëfe ji it mënut a ñàkk ci biir lislaam ixsaan gi nag mooy tax ba ku ko xool doo sëgg ku ko xool mën koo xoolaat ndax mooy mbubb mi nga xam ne ci lay ci lay suturloo kon loolu liñ ciy déggee rek mooy jullit bi moom ngir diine mat faaw ñett yi da koy da koy da koy yittewoo te bi ci jiitu nag mooy imaan te imaan ci tawxiid lañ koy lañ koy jaare hmm. bu ñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi te mooy nag tawxiid wàccuwaay bi mu am ci biir lislaam ak bi ko Cheikhul Xadim radiyallahu anhu joxoon euh, naa jàngkat yi moom dañ may jégal tey waxtaan damay taamu mu doon waxtaanu murid daal bu ko defee baat bi fu mu jógee wax xale yu waxidu tawxiidan yooyu moom nañ bàyyi ba Oustaz Mbàkke Abdourahmane ñëw fi hmm. su ko defee mu doon waxtaanu murid noonu rek tawxiid ci gàttal buñ ko waxee mooy mooy wéetal yàlla wéetal yàlla ber ko ba doo ko boole kenn ber ko ci meloom ber ko ci jëmmam ber ko ci ay jëfam loolu mooy tawxiid maanaam jox yàlla lim jagoo te jox ko ko moom képp loolu mooy tënkub tawxiid bañ cee guddal jox yàlla lim jagoo te jox ko ko moom kon ci loolu danañ xamee ne tawxiid bu ñu ko waxee mën nañ koo wax jublu ci xam-xam mën nañoo tawxiid jublu ci xam-xam bi xam-xam bi nga xam ne moom la nit kiy jàng ngir xam yi mu war a xam ci tawxid danañ wax tawxid jublu ci pas-pas bi mooy yi nga xam ne nit ki da ko war a gëm ci biir xolam waaye dinañ wax tawxid it jublu ci melo woo xam ne day nekk ci doomu aadama bi ba li koy gaar ci dundam saa bu ko gaaree mu mën a dox doxiinu ku am tawxid ju wér kon bu ñu waxee tawxid ñett yooyu yëpp dina ko firi safaanub tawxid nag mooy bokkaale tawxid bu ñu ko waxee ne mooy ber yàlla kennal yàlla wala wala wéetal ko safan bi moy nga bolé ko loko ko warta boole te buñu ñëwé ci l'islam te loolu moy indi ci solo ci nga xam tawhid amna ko ci bir l'islam suñu borom dafa waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko liñ la wax te wax ko mbolé ku ñu fi mas a yónni mooy doomu adama bo xamné doon na def lu bax sa bu ci raxé bokal yàlla ak dara lam jëfoon lépp dina ko yàq dana ko ñak wala xad uxiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wala takunanna min al khasirin neko sa bu bu ci raxé ak bokalé rek léppam dina yàqu kon tawhid moy li nga xamné bu ko nit ki amé ay jëfëm lépp dina baax suñu borom lépp dina ko nangu teyit it wax la ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suñu borom kat hadith al aaya boobu xam ngeen Cheikh khalim dan nako firil wala bok mas nako firil murid yi ne len inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi nu ngeen koy firé ñu ne ko mooy ne suñu borom du jéggal ku koy bokalé mu ne leen déedéet firiwul loolu ndax suñu borom moo wax ci alxuraan ni inna allaha yaxfiru zunuba jamian suñu borom dana jégale bàkkaar yi ne leen loolu li muy firi mooy bépp bàkkaar bu jullit def bu dul bokkaale bu ko tuubee bu ko tuubu suñu mën na ko jéggal ndax mën naa def leneen lu baax wala ci yërmande suñu borom sukkandiku ko jéggal ko bàkkaar boobu ne leen ba mu des bokkaale moom fekk ko tuubu ko suñu ko jéggal ne leen aaya boobu loolu lay firi mooy bokkaale suñu borom du ko jéggale fekk jéggal wuñu ko yeneen yëpp nag nit ki mën naa def leneen lu baax wala ci yeneen jamono mu def lu baax suñu borom sukkandiku ci ci yërmandeem ba ba jéggal ko kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu war a jàpp ci ci taw tawxiid ci solo si nga xam ne am na ko foofu la ñu war a teg suñu borom te mooy ber ko wéetal ko jox ko li muy yow te bañ ko koo boole kenn li sëriñ bi di wax ci mawaahibul quddus rek ne wa kullu ma yaxturu bil baali abat fa bi xilaafi zaaka rabbuna al lépp loo xalaat ci sa xel ba jàpp ko rek xam ne suñu borom wees na foofu bu dee wàccuwaay bi nga xamé ni amon nako ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam daa fi jooju xam ngeen doy na ci rek loolu ñu waxoon ci jibril bi waaye am na beneen bu ñuy wax xadisu abi abi zar kenn la ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim nee na dafa ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko képp koo xam dafa gëm laa ilaha illa allah faatuwaale ko bu ëllëgee dana dem aljana abu zar nee na ko ba ci bu dee ay tol mu ne ko ba ci bu dee ay tol ba ci bu jëlalé jàmm mu ne ko ba ci mokk ko ba mu ñetti yoon yéen soo ne ko ba di bu dee def loolu ba ci buy def loolu dana dugg àjjana ne ko nee bu mu dana ko ne ko ba ci bu neexee Abu Zar ak bu ko neexut kon tawxiid mooy loo xam ne ci la ci la nit ki di garanté aljanaam ëllëg ku ko ñàkkit mooy safaan bi ku ne mën naa jàpp lool waaye tawxiid tamit fees na lool ci jaar-jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax xam ngeen yonent bi dafa def ñaar fukki at ak ñett la woote fukki at ak ñett yi mu def ko Màkka fukki yi mu def ko Madina fukki ak ñett yu def Màkka yépp ci tawxiid la doon woote ci nu ñuy nu ñuy nu ñuy fas suñu diggante ak suñu borom nu ñu koy wéetale nu ñu koy kennale nu ñu koy joxee li mu yeyoo ak yenn yenn ci ay jukko waaye dem na ba ci fukki at yu mujj yi nag mu doog a dugg ci yeneen atte yeeg demee ni ki noonu ñu xam ne kon def na fukki at yoo xam ne ci lii rek la bëggoon mu sax ci biir ci biir njaboot gi waaye yaatal gi dëgg-dëgg ci yenn at yi mi ngi ko tàmbalee bi mu demee ba baag matina kon yooyu ma wax yëpp ak yu ma waxut day fésal tawxiid solo si nga xam ne am na ko ci biir lislaam am ko ci alxuraan am ko ci sunna bu ñu ñëwee ci Seexul Xadim it noonu la ko joxe woon yitte day wax ne tawxiid bu fekkoon jullit bi kuy def commerce la kuy jënd ak jaay ñu mën ne capital bi nga xam ne moom lay liggéeyee mooy tawxiid te ab commerçant bu amul capital mënut a tàmbalee liggéey sëriñ bi ne capitalam bi mi nga xam ne ci lay tàmbalee liggéey mooy tawxiid ne lislaam it bu doon nit la ñu mën ne ruu gi mooy tawxiid wa baadu fa tawxiidu rasul maali wa ruuxu diinillaahi zil jalaali wax ne it tawxiid mooy li nga xam ne mooy mooy musal nit buñ ko dugalee ci bàmmeel moo koy musal it bu ëllëgee yowmal xiyaam lakinnama tawxiidu xayru zuxri li shaxs li shaxsi fil xabri wa yowmi nasri ne kat nit bu duggee ci biir bàmmeel wala ëllëg yowmal xiyaam li ko lim gën a mën a def muy ndexamteef bu mu bu mu denc mën koo dimbale bu ëllëgee mooy mu am tawxiid ju sell wax ne it ne jullit bi mbooleem xeeti xam-xam yi muy jàng yépp bi ci jiitu mooy tawxiid bi ci gën li gën ci mboolem lu jullit war a jàng mooy tawxiid ba noppi ndax bu baaxul li ciy tege lépp du dul baax looloo tax wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxiidu rabbina ala ittifaaqi wa baadahu tafsiru lil qurani summa alxadiisu xaalahu daymaani wa xayruha min baadisa wa zeyni ilmu tafaquhi bi gayri may ni ne jullit bi xam-xam bi gën ci bi mu war a jàng bi mu war a jiital mooy tawxiid ba noppi su noppee ci tawxiid nag mën naa jàng ci tafsir bi nga xam ne ci lay xamee alxuraan xadis yi nga xam ne mooy xadis yi nga xam ne day ñëw ngir leeral alxuraan moom it ak ya cay topp ci fiq ak yu demee ni ki noonu kon xam-xam bi jiitu ci bi jullit bi wala jàngit mooy tawxiid moo tax moom sëriñ bi mu daan wax ne moom diineem diineem mooy tawxiid juñ jaale ci sunna sëriñ bi sallallahu alayhi wasallam diine tawxiidu ilaahi naasi bi sunnatil maaxi anil adnaasi wax ne ne fàgguteefam ñaari mbir dong la mooy tawxiid ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam kasbiya tawxiidun wa madxun linnabi alayhi taslima gafuril muznibi ne ñaar yooyu ñooy ñooy yoonu murit wi nga xam ne ci la ñu dajale bi mu nekkee njaaree moom sëñ bi ci mu jëm xam ngeen gouverneur bi nekkoon ndar yónnee woon na ko ay laaj di ko laaj sëñ bi fukki laaj ak juróom-ñett maanaam yoon wi nga nekk mooy lan fu mu cosaanoo ñi ci bokk dëgg-dëgg ñooy ñan ñan ñooy say taalibe ba mu jeex laaj bu njëkk bi da koo laaj cosaanul yoon wi lan la sëñ bi ne ko ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawuf ne ko yoon wi moom yoon wi ñu nekk ñu su doon mbaar la ñetti jën rek ñoo ko téye mooy imaan juñ jaaree ci tawxiid islaam ju jaar ci fiq ak ihsaan yoo xam ne ci tasawuf lañ koy jaar kon loolu fës na ne ponk bi jiitu ci yi mu yi mu tawoo mbir mi mooy imaan boo xam dafa jaar ci tawxiid gi ñuy waxtaane mu doon loo xam ne it kon daa gën a ci taalibe yi ci ne mënuñu ko ñàkk ñaareelu tomb bi te mooy dëgg-dëgg waxtaane mooy yitte ji nga xam ne nag suñ bi joxal na ko tawxiid ji ñu doon wax moom التوحيد خم جن أمن ناري خيت توحيد يا خم بتونا كسرين جبين نج التوحيد المتكلمين التوحيد العارفين كم نم قوي خيت مسالك وبعده التوحيد للقسمين منفصل منفصل التوحيدين فأول تكلم وثاني تعرف لا تنكر بياني التوحيد المتكلمين ما يدمي جانلك أي مواهب القدوسة يدمي نكنون التوحيد العارفين ما ملي جانلك المسالك الجنان يدمي نكنون كن بيني وقت أنا فين ما يبون جكلي بينا خم نم جمت أي مسالك أي مواهب القدوسة يدمي نكنون bu ñu ñëwee ci loolu li ñu tàmbale mooy xam ngeen ci biir lislaam pas-pas bi nit ñi am ci wàllu tawxiid ak yu demee nekki noonu dañ cee am ay école yu wuute mën nañu dañ cee am ñett yu mag yu fés yoo xam ne ñoom la ñuy boole tuddee leen ahlu sunnati wal jamaa ahlu sunna wal jamaa julli ñu tege ci yoonu ñëpp lañ nekk ahlu sunna wal boobu nag ñetti kuréel yu mag ñoo leen ñoo leen ñoo leen ñoo leen composé li ñuy woowee achaira yi muy achaira yi nga xam ne abul hasan lañ nekk Maturidi Abu Mansour Maturidi moo leen jiite nga xam ne ñi ëpp ci xana axnaaf fi ci lañu nekk ak asariya yi nga xam ne imaam Ahmad ibnu Hanbal radiallahu anhum jamian ñoom moo leen jiite ñetti kuréel yooyu la ñuy boole ñooñu la ñuy woowee ahlu sunna wal jamaa ci li wér te sax saa bu ñu nee ahlu sunna wal jamaa mooy ñetti kuréel yooyu sëñ bi nag bi mu ci tànnoon mooy bu njëkk bi achaari lay mooy ci achaari yi ci la nekkoon boobu nga xam ne ñi ëpp ci jullit ñi sawaalul azam ci lañ nekk donte yëpp yu wér la yëpp yu baax la loolu sëriñ bi foofu la tànnoon kon li bind ci tawxiid lépp ci gisinu Ash'ari yi la ko bind ci la ko bind bu ñu ñëwee ci lim ci jëf nag yitte jooju mu def ci tawxiid mën nañ koo xool ci ñeenti barab yu bokkut ni ma ko waxee woon mën nañoo xool ci moom sëñ bi ni ko daan ni ci daan soññee taalibe di leen soññ ci ñu yittewoo tawxiid di leen soññ ci ñu ñu fexe ba xam lan mooy tawxiid fexe ba am ko ci seen seen jikko boobu benn tomb la ci waaye lim leen ci yaxalal lim leen ci bindal ci ay téere yuñ mën a dellu ngir xam li ñu war a fas ci seen diggante seen borom lan la loolu it ci la bokk mooy ñaareelu tomb bi ñetteel bi mooy nag ñu joxe ay misaal ci sëriñ bi ci ab dundam yoo xam ne ay mbir wala ay xew-xew wala ay tolluwaay yoo xam ne tawxiidam feeñ na ci kon bu ñu demee ci bu njëkk bi te mooy ni mu ko doon digalee nag njaboot gi أنا فوسي بي واخني على المقامات عند الله تعالى في هذا الزمان اسكان التوحيد في القلب ني جامونو جي ني نيك درجه جي مك بو جوليت مانا ام سون بولو موي مو فخه با سي خولم مو ام توحيد بو سل توحيد بو سل جو خامني دارا دوكو راخ نينا لول موي لي جيتو تي مبول مقامم بو جوليت مانا سوني طالب يي كون سي تجيب نانكو ديف سي ام توحيد وير واخنا يبني مريد بي لب مي ورا جانغ سي اي خام خام lu mu war a yittoo la ca jiitu mooy mu fexe ba am xam tawxid ba noppi awalu waajibin ala al muridi taxsilu zaadihi min al tawxid li jiitu ci ab murid wala jàng ba noppi mooy mu fexe ba am yóbbal bu mat sëkk bu doy sëkk ci tawxid ba noppi leneen lu mu ci teg mu doo ko ci teg xabla shigaalihi bil infiraadi bi zikri waxdahu wa bil jihaadi muntahijan mazhaba ahli sunna maa al jamaati wa tilka al junna ne kat jullit murid bi ki soobu ci yoonu yàlla bala moo yittewoo zikkar bala mu yittewoo di wéet bala mu yittewoo yi mboolem xeeti jihaad yëpp na fexe ba li mu war a fas ci diggante mag boromam mu xam ko ba fas ko ba noppi leneen lu mu ciy teg mu da ko ci teg kon murid yëpp jullit ñëpp taalibe yëpp war nañoo góorgóorlu ci ku ci nekk ñu góorgóorlu ba fexe ba xam li ñu war a xam ci suñu diggante ak suñu borom ci tawhiid ñu fas ko ci seen xol wax na feneen ne jullit bi li muy tàmbali li muy tàmbali ci tawhiid والحق بدأ العبد بالتوحيد والفقه عن تصوف المجيد منتهجا مذهب اهل السنه مع الجماعه وتلك الجنه ليغا خا نني موي ديغي امو سيكي ساكا موي جوليت بي تامل لي توحيد تكي فقه بولي تي تصوف بي سات جار تي يون ليغا خا نني موي يون اهل السنه والجماعه ليغا خا نني موي ريد دوغلا سوكو ديفي دا نا خا نني جار نا سي يون وخا نني بو ليغي دو ام بن جيفي جيفي واخنا ايت ني توحيد دونغ موي يون ليغا خا نني تي لا جوليت مانا جار غير موتشو بو ليغي إذا ابتدى المرير بالتوحيد والفقه عن تصوف والفقه والتصوف المجيد منتهيا مذهب أهل السنة مع الجماعات نجا من فتنة نبجلد بتعمل شيء أم توحيد دولار دي جفة في وقت دي كو جارة يون تصوف وسب جارة كو يون أهل السنة والجماعة نخمنا نجا من فتنة بوالا جسم برم بانكم مسجد لكل من رجل بوالا جسم كون يو يبني ورنا سرين بموم فمنا murid yépp ci góorlu ci am tawxiid waaye ñu jaaree ko ci jàng ko ba noppi bu ñu ko jàngee ba xam ne lii lan la ñu xam nag liñ ci war a fas seen diggante seen borom xam ngeen am na nettali bu mbind moomu suñu mat Lamin Jóob Dagana indi ci irwaaw nadim di wax ne sëñ bi ko bindoon yónnee ko mboolem taalibe yëpp ne lii kat maa ko bind yónnee ko mbooleem ñi nga xam ne dañ ne dañoo aju ci man hmm. ñu ay góor wala ñu ay jigéen dañ xam ne digal naa leen ñu dem jàngi nañ jàng lépp lu jëm ci seen pas-pas tawxiid xam lu ñuy fas seen diggante seen borom lu jëm ci julli lu jëm ci laab attee julli attee koor ak lépp lu mënta ñàkk ci jullit ne naa leen nañ ko jàngi ne nag warlul naa leen ne dinaa leen bindal téere yoo xam ma leen wax lépp ko ci fekk hmm. te bi mu ko def na ko nag hmm. sëñ bi def na loolu bind na nangami téere yoo xam ne li jullit mënta ñàkk ci diine moom nekk na si waaye boo gisee ndigal lii rek sëriñ bi li njëkk digal taalibe yi mooy bi a aqaidi wa tawxid nañ dem jàngi lépp lu jëm ci pas-pas ak xam ni ñu wéetaloo yàlla loolu nañ ko jàngi ba bu buñ ci jógee nañu jàng lu jëm ci laal lu jëm ci julli lu jëm ci koor kon lim leen digal ngir ñu jàngi ko li ci jiitu mooy ñu dem jàngi tawxiid ba noppi ginnaaw bi nag ci la leen téere yooyu nga xam ne mooy nekk ñaareelu wax tomb waxtaan wi te li sëriñ bi bind nag ci tawxiid bala ñoo tàmbalee lim as lëf ci téere yooyu rek dañuy wax ne solo sa njëkk jox bind ci tawxiid ñu ngi feeñee ci ne mboolem jamono yi mu tolloon yëpp moom sëriñ bi état yi mu jaar yëpp fu ci nekk daana bind ci tawxiid bi fi sëñ Mor Anta Sali daan na bind ci tawxiid bi mu fi jógee muy doog a woote yoon yi bind na lu bari ci tawxiid bi mu nekkee Tuubaa gi bind na ci bi mu nekkee ci géej gi daan na ci bind ba mu ñëwee nekk gànnaar daan na ci bind ba bi mu ñibbisee njaareem li muy xat-xat am na taalif ci tawxiid yoo xam ne fa la ko def di wane ne kon dundam gépp mës sa jug ci di bind ci tawxiid ak di ko fàttali dinaa ci lim nag yenn ci ay bind yoo xam ne ci tawhid la ko bind ni ma koy bind limee nag wul na noonu la toftaloo ci bi mu koy bind bu njëkk bi di ma wax bul quddus fi nazmi nasri cheikhina sanusi bul quddus fi nasri fi nazmi nasri cheikhina sanusi di téere boo xam ne mi ngi ko bindoon ci nekk waajuram wax na ne sax si maanaam seen am na ñu ko jàngal ci ak njabootam ñoom suñ cheikh coroog ñoom ñooñu suñu afiya téere bi mën na juróom-benn téeméer ak juróom fukk benn ci ay bayit téere bi way la ci tawxiid dong la ko bind daayira Rawdu Rayaahiin taxxiif nañ ko ba génne ko mu delu ci téere innocent aussi way ko dolli ci yeneen yoo xam ne nekku wala woon rubbama fii ma jëlee shay al azid lam yëku fi nasri li yanfa al balid ne dam mom lay way kat waye nak dina ci dolli yoo xam ne néewutoon ci cosaan la ngir ki ko jàng moom gën cee mën a jëriñoo ñaareel bi fatahul fatah al alim al khabir fi wasi ilmin yu addi ila al ajri kabir moom it téere la boo xam ne mën na ñaar téeméer bis ak fanweer ñaar sëriñ bi umul baraahin la ci way mel na ne sax moom moom la mujjee def ci mawaahibul quddus ñetteel bi nazmu suxra nazmu suxra suxra suxra moom it téere imam sanusi imam sanusi la sëriñ bi way ko ci moo tàmbale ci xaala li wajhillahi abduhu xadim rasulihi ahmadu rasulihi ahmadu yaabudul xadim ñeenteel bi jësbatu sixaan an laa bind li xidmatil muxtaar mën na téeméeri bayit ak juróom fukk ak juróom ci yim njëkk bind la bokk sëñ ma la sax tudd na ci irwaan يلومل فهاد الغني المغني في نظم معاني في ما في نظم معاني السلوك يغني خم جنتير بابو وحنا إن بنتو عقيدة في رسالة من لجسر جوال من نياتي من بي أكفر دكتور شيخنا باكر مسلم الله خالو شخصنا كم في المغني في معاني في غني المغني المغني في معاني فايد غني المغني مام كلهم في تكاي بيرد بس فك مام في توكل لوكسين بيرد جل ملبي أكتر نكون متفقرا والأوجوزة تكون ممفقرا من نجات البيت أكنون نجات جل ميارلبي بمو جل ملبي جل ميارلبي ديال بتو سعادة مملين جنو ميني كي مراحل أمنو سعادة جل ميتلبي جمال مقامات التي فرها إلى يرخو في شرح قصيدة لا تأخذه سنة ولا نوم مم أي ويل أيوان بجسر أمنا بنن بن بن بوخمني أي ويل أن يتعمل لتفعل لوجه الله عبد الله فكي البي فيد العليم فيد العليم الخبير الوحيد فيما لا يستغنى عنه من التوحيد فك بن البي فتح فتح الظاهر الباطن في نسيحة في نصيحة الراحل والفاتح من غسل الله نظم الجواهر الحساب في تحقيق معرفة أركان الإيمان من فهم جنسين بن تنيان بن بن تام لجخار لوجه الله عبده القديم كان له بأمن كان له الله بأمن قد يدوم قال لوجه الله عبده القديم kaana lahu laahu bi am nin xaryadu beneen bi mi ngi tàmbale ci alhamdulillahi alladi man qasada am xamaahu amman wasada ñaar yooyu ñoo bokk wenn tur yi te ñaari téere yi bokkul la ñoom ñëpp am nañ ci diwaanu ulumu diiniya boobu waa Raabital Xadimiya génne woon ñaari téere yi yëpp ña nga sax am na beneen bu mu bind mu fukkal ak ñeenti kon moom weesal la boo xam ne ñu ngi ko tàmbale ci ashhadu anna allaha mawjudun fukk ak juróomeel bi beneen téere la boo xam ne it ñu ngi tàmbale ci bismillah am na bu tàmbale ci auzu billah amna buñu wax mawaahibul khadim mom ay way la amna na li zawil itqan mo tambale ci tafakkaru ya khawmi fi sifati man bobu ay way la yu andak ak wesar ak juroom ñentel bi momit kitabul fi tawhid la ko tudde momit it la fukk ak juroom ñent yi mom fukki tere juroom ñent yi ma wax du yuma deg dal yuma gis la yo xamne sëñ bi ci tawhid la ko bind damay gënal nak ma yam ci yima gis mooy mu laal ma ne yi ma wax ne du ñak sax ci mbooloo mi ku xam yo xamne ne ko fukki tere juroom ñent ngi nii yoo xam سين بي كي توحيد دوم لا كو بنت توحيد راك سي دام تي لولو ييت داي ام جي مبنام يينن يو خامني نيت خاج يي ايمان اسلام احسان ولا بوك توحيد فقه التصوف داي بيند اي تيري يو خامني نيت خاج يي لا كوي بول بوين ديمي لو ني تزاول الى جن تزاول الصغار الى جنان الله ذي الانهار نون لا كو بيند خاج بو نيت كي توحيد لا كو جيمالي دكتور ابو مريم شعيب تيو شرح نكو مومي تودي كو فتح الغفار في شرح تزاول الصغار mën na ñetti téeméeri bayit ak benn tasawulu subbaan ila tibaa malik dayyaan moom it ni mu bindee tasawulu siraar la ko bindee dafa ko gën a yaatu rek moom mën na juróom-ñaar téeméeri bayit ak lu topp moom it xaaj bu njëkk bi ci tawxiid la ko bind am na beneen bu mu tuddee muqaddimatun fi tawxiid wal fiqh ñu ngi tàmbale ci aouzu billah alhamdulilahi ala al iman moom tam nasra bi kon lii boo ko boolee ñaar fukki téere ak ñaar la yoo xam ne sëriñ bi ci tawxiid la ko bind yoo xam ne ñi ngi fi di tege ngir fësal solo si nga xam ne sëriñ bi joxoon na ko tawxiid ci mbindam loolu mooy lim bind ci tawxiid bu ñu ñëwee ci xasida yi moom lim ko xaju fi misaal bi ci gën a jege rek sëñ Jili Mbàkke moom sëñ Cheikh May di ko jàmbaane macha allah diwaan yooyu muy génn am na ci diwaan boo xam ne ay xasaayid aqadiya la ci la ci dajale ay xasaayid yoo xam ne sëñ bi ci aqida la ko bind ci tawxiid am na ci diwaan boo xam ne da ci nekk ci ay xasida yu jëm ci tawxiid rek mën na juróom-ñaar fukki xasida ak juróom juróom-ñaar ak juróom yoo xam ne lépp ci tawxiid dong la jëm juróom-ñaar fukk ak juróom yooyu noonu su fekkee see ñaar fukk ak ñaar yi ma jëkkoon wax juróom-ñaar fukki téere ak juróom juróom-ñeent juróom-ñeent fukki téere ak ñaar yu mat sëkk juróom-ñaar fukk juróom ñaar mooy juróom-ñeent ci ay téere tawxiid yoo xam ne sëñ bi ci tawxiid dong la ko jëmale ci tawxiid loolu moom ngir ñu dégg ko jox yi tëju toll noonu tawxiid du ma ne amut de waaye bëriwut nag moom xam naa bëriwut te amna na yu ma xamut loolu bokku ci li ngay fekk ci téereb min wasaaya Cheikhul Xadim nga xam ne am na wasaaya yoo xam ne ay ndenkaan yoo xam ne ci tawxiid la jëm rawdu rayaaxiin dajale nañ ko min fatawa Cheikhul Xadim moom it Serigne Abdou Khadir Bousso bind ko rawdu rayaaxiin génne ko am lu fa nekk loo xam ci tawxiid la jëm min xikami Cheikhul Xadim nga xam ne rawdu rayaaxiin ñoo ko génne lu ca nekk loo xam ci tawxiid la jëm te yooyu bokkut ak téeméeri manque ñett yi ma njëkk a ak yi xamut ak yi ma xamut wala yi ma ci sax nag yooyu yëpp di wane yitte joo xam ne sëriñ bi joxoon na ko tawxiid ci mbindam kon ku bind lu lu ëpp wala lu mat téeméeri téere yoo xam ne lépp ci tawxiid dong la ko bind tawxiid rek ci la ko bind kooku bu ñuy wër ku joxe ku jox yitte dëgg-dëgg tawxiid mën nañoo jàpp ci moom bu ñu ñëwee ci ñaareelu tomb bi te mooy ñu jël nag ay misaal ci ay mbir wala ay xew-xew wala ay tolluwaay yoo xam ne ci dundam mom serigne bi la amé yo xamné tawhidam tawxiitam feeñ na ci bu baax baax bala ñoo ñëw fofu rek mëna ñoo tambalé wax né serigne bi dafa tambalé won dafa am fu mu jaar ak suñu borom ci tawhid bi mu da doon ñaan na ma ngi lay ñaan nga defal ma ma am tawhid, tawhid gi gën tawhid gi nga xamné ci ngay nangoo jëf julit ahadu habli afdal tawhid bi xormatil al wahid suñu borom yow mi nga xamné yaay kenn ma ngi lay ñaan nga defal ma ngeen gi tawhid tawhid gi julit ngi lay ko ñaan ci barke bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam. bi mu demee ba suñu borom nangul ko loolu it muy bind di ko ci sant laka shukuri l yowma bi tawxiidi yaa daa imal wujudi wal wuxuudi tey jii de maa ngi lay sant ci tawxiid gii nga ma baaxee yow mi nga xam ne yaay borom nekk gu sax gi tey borom kenn gu sax gi maa ngi lay sant ci tawxiid gi nga ma defal moo tax muy mujj di wax yenn xeeti waxi ni man zanna anni man zanna man zanna anni gayru abdillahi wa gayru xaadimi nabi fasaahi képp ku jàpp ne man kat lenn laa lu dul jaamu ko jaamu yàlla di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam na nga xam ne yow ku ku juum ku juum nga ku wéradi nga man zanna anni ghayru abdullahi fa zaka zu safahatin wallahi ne maa ngi wàcc yàlla ne képp ku ma jàppee lu dul jaamu bi yàlla ak liggéeykatu ku am xelam manqué la waaye daan na wax it ne tawxiid mooy jaasi ji nga xam ne moom lay xeexee ak tubaab yi ci lay daggee seen baat yi sayfi yafritu la man sallasu tawxiduhu fa huwa al ilahu alwaxidu mu ngi ci xasirak yaa jumlatan sallasu bimi lim ay nganna yi nga xamne mom lay jëfëndiko ci jihadam neena jaasi jim yor diko xexé moy tawhid xamne waxna ne wax na feneen sallasu yawm al ahad bi khinjari tawhid abdan lil ahad ne kat rendi naa ay bokkaalekat yàlla da am lu ci jublu ma ngi len ko defé nag ci paakab tawhid bi nga xamne ci lay kenne la suñ borom ñu ñëw nak ci misal yi ñu mëna joxe ci ak bindam moom sëriñ bi mën nañ koo tàmbalee ca ak njëlbeenam ca raw ga bu ñu xoolee bokk na ci fii yitteem jim joxoon tawxiid di fés xasida xaaluwul werkan li tax mu bind ko xam ngeen xasida xaaluwul werkan suñu moroon sëriñ bi mu fi jógee ñu denc ko ba noppi dafa am ñenn ñu ko gaaraloon moom sëriñ bi ne ko kat dañoo bëgg nga ñëw ñu ca Joor mi nga xam ne wala sëñ moo nekkoon mooy buur bi nga xam ne suñu moroon sëli jege woon na ko daan na ko yenn nii daan na ko xelal bu ñu demee mu féetale la fi mu ko féetale woon wax a wax bàggal sëñ bi xamal ne ne nag loolu moom du yitteem moom mbir yi buur yeeg yooyu taxu koo jóg ginnaaw bi nag am na ay wax yu ci tegawaat ñu koy gaaral ay wax di ko gaaral ay wax ba wax ji agsi ci moom ci la bind xasid ak xaalu leer kan wax ne kat ñi ngi may wax ne naa jàng jëm ci kër buur yi su ma ko defee dinaa ci jëlee ay xewal xaalu leer kan li abwaabi solaatini taxus jawaisa tourni kullama xiini فقلت حسبي يا ربي واكتفيت به ولست راضيا غير العلم والدين بما وخي لو كان نينا لين نك مان سون بروم دويلا دوينا ما تا دويلو ناكو سك تا ديني اك جيكو رافيت ولست ارجو ولا اخشى سوى ملكي لانه جل يغنيني وينجيني تي تي رغالوما ياكاروما كين كودو يالا ندا خمنا ني لي ما بغ موم رك موماكو مانا جوخ لي ماي رغاليت موم كيب موم تي مانا موسل أنا أفوض أحوالي لمن عجزوا عن حال أنفسهم عجز المساكين نون صح لما ندمنا نون لا جل اسمه بير ديرم ديكو ويك شيء نين يو خم نين يوم سير مين يوم صح نون نون نون نون اسمه كله فيصل نيوان ما يات نون لا يدفع لون من دال إنت أنا عيبيا زهد في حدامهم فزاك عيب نفيس ليس يخزيني نك ددو جيم ددو ميري أدني جيم كسوي بلام بدي نين يوم لنجاب بسيك بدي ما كجوي نين خم نسيك سوسمون من نيخ نكمل te gërëm naa ci suñ borom te rusuma ci in kaana aybiya zuhdun fii xotaaminhumu fa zaaka aybun nafisun laysa yaxzini lii buñ ko delloo ci contexte bi ko sëñ bi waxe ci li ñuy gën a xamee dëgg-dëgg solo si mooy jàppal ne président de la république ki jiite gox bi yépp moom lañ ko gaaral ngir mu ñëw mu def ko ministre wala mu def ko conseil mu sës ci moom sëñ bi ne baax na li mu bëgg suñu borom donc ko mën a jox loolu bu ñu ko delloo fee ci jamono jii ñu toll nii ci la ñuy xam dëgg dëgg dëgg tawxiidi sëñ bi ni mu fësee foofu ak ni mu gëm ni mu xamee ne suñ borom rek moo ko mën a jëriñ te moo ko mën a lor xam ngeen xew-xewi Samba Sadio yooyu amoon xare bi mu amee am na ñu jébbulu jóge ci Lat Joor jébbulu ku ñuy wax Biram Koddu ci la bokk sëñ Basiru nettali na ko ci minan bi mu jébbuloo ci sëñ bi ne ko ngir mu nangu mu bokk ci taalibe charte bi ci jiitu mooy lu mu jëlee woon ci xare ba da koy delloo ci seeni borom ndax daganut wóoru koo jël indi woon na ay coow diggante yenn borom xam-xam yu nekkoon ci Lat Joor ak sëñ bi indi woon na coow Lat Joor di wóolu sëñ bi mel na ne sax xelam nekkoon na ci nag ci dal ci kawam ay ay jamono ba yàgg mu mujj ko baax sansam la moom la jox mu yónnee di woolu sëñ bi woolu ko ay yoon sëñ bi ñëwut sëñ Mat Lamin nee na am na ci yoon woo xam ne ki ñëwoon sëñ bi da ko ne xul lil amiri inni astaxyi an taraani malaikatullaahi taxmiluni taxmiluni aqdaami ila malikin gayrillah boo demee ci buur bi nee ko li tax mu may woolu ñëwuma dama rus sama tànk yi ma di ko dox jëm malaayka yi di ma gis ma jëm ci beneen buur bu dul yàlla boo demee nee ko loolu dama ko rus moo tax mu mooy woolu ñëwuma loolu nag ku nekk ci ñun na xool rek bu ñu gouverneur woolu woon rek fi mu ne jëlale na ab ministre wala président wala yooyu waaye suñ bi ne rus na moom malaayka yi suñu borom yi di ko gis mu dox jëm ci benn buur bu dul yàlla rus na ko kooku mooy kii kii dëgg ki jëmmal tawxiid dëgg-dëgg ci ab dundam xam ngeen bi fi suñu moran sali jógee bi mu wootee yoon yi moom sëriñ bi doon na wër fépp fu mu dégg lu baax rek fa jultu bayna al ulama wala awliya bi niyati wa amali wa xawli ya kay la yadi umri ataaba ba jeex fu dégg lu rek fa kuy dund mu dem fa bu fa wérd mu ko fa su fa jëli ñaan wala lu baax mu jël ko fa bu ko dundul mu dem barabam ñaanal ko barkeelu ci barabam doog a ci wër googu am nit ku baax ku sëñ bi demoon ku ñu ci réew mi koo xam ne xëy nañ ko xel am lu fa sëñ bi bëgg def fa diir jotu ci sëñ bi bëgg a wéy ci yoonam moom ci noonu ñu ko xamee rek fullaam jooju nga xam ne xam na ne day sabablu waaye suñ borom may joxe ba mu bëggee dem xëy na kilifa ga bëggul mu dem bàyyee bu ko daal ci gàttal sëñ bi ne day dem mu xaw koo menacé ci ne bu demee nangam mën na ko ca fekk xëy na kooku daan na ko def ay nit loolu dinañ ci fekk daal di tëkku sëñ bi daal ci gàttal tëkku ko sëñ bi jël xalima jël kayit bind ci bayit teg ko fa daal di wéy ci yoonam bind ko ne ko man zanna gayrallaahi yugni aw yadur fa zaaka fi daarayni zu kaddin wadur addurru wannafu min arrahmani laysa min albidaani wa sudaani addurru wannafu min aljabbaari laysa min alfujjaari wal abraari addurru wannafu min alwahaabi laysa min al aadaai wal ahbaabi daf ko bindal ne ko jariñ képp ku yaakaar ne kenn mën naa jariñ mbaa mu mën a lore ku dut yàlla àdduna ak àllaaxira ciy coono ngay dëkk ne ko njëriñ ak lor ci yàlla képp lay jóge jugewul ci nit ñu weex ñi jugewul ci nit ñu ñuul ci ñu jub ñi jugewul ci ñu jubadi ñi jugewul ci ñi nga xam ne ay noon lañ jugewul ci soppee njariñ ak lor ci yàlla dong lay jóge tegal ko fa kayit bi daal di wéy ci yoonam ba tey jii may ñëw fii dégg guñ ne sëñ bi dara dal na ko moom ca loolu ñu ko teg ko ba bi may ñëw fii moom dara jotu ko loolu di wane ne tawxiid tawxiid ji da ko jugale maam loolu suñ sëñ Basiru naan xuli fa rabbaaniyan sëñ bi dana bëri àgg maanaam dallan dallan allahu ala muhammadin waxaala ni muhammadun li samadi baagante boobu noonu daa xaw a neexuta leeral fi mu ne demen dañu bërit ak ñëwaat demaat moo tax yooyu noonu da ko jugaale tawxiid jeeg kennal yàlla jeeg wóolu suñu borom jeeg yitte ju kawe ji sëñ bi da ko da ko da ko da ko juge waaye kooku moom ba mu ko tëkkoo wax dëgg nag dara jotagut sëñ ba tey nag yaakaar naa bu ko dal jot jot na ko ba léegi moo tax sëñ bi mas a jug nag ci waxin woowu waxin woowu noonu mas cee jug lastu axaafu durra xalqin baadama fawattu amriya ilaa rabbi sama bi ma jëlee samay mbir wékk ko ci loxo suñu borom ak léegi amatut ku may tiit ci mbindeef lastu axaafu durra xalqin baadama fawwadtu amriya ilaa rabbi sama yitte ji mu joxoon tawxiid it feeñ na ci xam ngeen ay dëkkam moom sëñ bi tur yi mu koy tudde moom dafa gane àdduna ci njaboot goo xam ne maami sëñ njiil yi bu ñu sañcaan ay dëkk ci seeni sant lañ koy delloo am ngeen fi ay mbàkke sañanka mbàkke baari mbàkke bawal mbàkke kajoor ci seen sant lañ koy delloo sañ nañ ko nag ndax xew na ci réew mi ba léegi sëñ bi moom ñëw ubbi weneen yoonu bees sañcub dëkk tuddee ko daaru salaam muy kër yàlla suñu borom bu dëkk tuddee ko tuubaa muy aljana daarul xuddus daarul rahman daarul minan ba ci yiñ sañ ci ndig ci ndigalam daarul mannaan daarul mooti daarul xadim yooyu yëpp ci suñu borom la koy delloo di wane ne ci ay dëkkam lépp da ko jallo ci suñu borom nga xamne moy moy moy mom mom lépp lolou tawhid sëñ bi fess na ci bu baax a bax ak njabotam xam ngeen li sëñ bi am ci ay abade la ño xamne ay ay ak njabotam lañ wala ci wa taalibe ken xam xamu nu mu toll abdullahi abdul ahad abdul rahman abdul quddus abdul salam abdul muhaymin yudul jeex tur yoy gis ngeen ni ni mu tasaro ci bir ci bir murit waye bokku na ci it yitte ji sëriñ bi joxoon tawxiid jamono ji mu nekkee fii ci Touba bi muy bind ci matlabul fawzeyni nga xam ne bi mu sancee dëkk bi la ko bind jël léppam ne suñu borom sama lépp dénk naa la ko sama lépp teg naa ko ci sa loxo àdduna ak alaaxira yallaahu yaa xafiisu yaa zal amri yaa faaiqal xalqi maan yaa faaiqal xalqi maan bil qahri nafsi wa diini summa ahli wal walad wa maskani laka wadiatun abad wa hakaza dunyaaya ma axraaya fa fiihi an nisri fi raza ne ko yow suñu boroomkat kat yow mi mën a sàmm na nga xam ne dénk naa la sama bopp dénk naa la sama diini sama njaboot sama waa kër dénk naa la dëkk bii ma ne dénk naa la sama àdduna ak alaaxira maa ngi lay ñaan nga sàmmal ma ko fépp fu ma mën a nekk loolu li ko wadiatun moom li ko sëñ bi wax daa bari ijma mata wadiatun indaka fi saadi sanat fu mu toll rek da koy wax ne ko dénk naa la ko maa ngi lay ñaan nga sàmmal ma ko kon lool di ci ngeel njëlbeenam bu mu tollé fi ci Touba nga xamné dama gut sax dama gut sax ci géej gi naka non it da na saxal ci biir taalibe yi ne leen képp koo xam yàlla tax ko jóg mu ta ànd ak mom man arada allah falyuqim wa man arada ghayra allah falyaqum yaqum képp koo xam yàlla képp la tax jóg bismillah képp ko leneen yitteel nuyul ma sa man arada allah falyuqim wa man arada ghayra allah falyaqum man na jóg dem seigne basirou nettali na ne am ci mag ñi ku tuddoon sëñ Abdoulaye Diaw bi sëñ bi nekkee fii ci Touba yabaloon na ko Daaru Salaam ne boo demee neel fere yi képp ku àdduna dong tax a jóg wala àllaaxira dong tax laa jóg wala àdduna ak àllaaxira tax laa jóg abal ma man ngaa ñibbi ku yàlla dong tax a jóg daal mën ngaa toog ku ku lenn ci yooyu yitteel mën naa dem loolu ku ko waxoon fi mu ne mbooloo moom boo gëstoo doo gis gan soob yàlla ndax nit ñi àdduna la ñuy bëgg baa ñu bëgg àllaaxira baa ñu bëgg àdduna ak àllaaxira mu ne ku yàlla dong man mën ngaa mën ngaa dem waaye xam ngeen daan na saxal bu baax tawxiid jooju ci mbooleem ñi nga xam ne ñoom lay jëflanteel bi mu nekkee fii ci Touba xam ngeen buur boobu di sàmbalaw bi te nekkoon ci Jolof yónnee woon na ko di sàkku ci moom mu bindal ko ndénkaan wala laabire koo xam ne moom da ciy jëriñoo moom sàmbalaw bi waaye bokk na ci li ko sëñ bi wax rek mooy fàttali ko ne ko maa annal mulka bi yadillah man ko ne ko nguur yàllaa koy joxe yàllaa koy xañe muy tàmbali maam tawxiid fu tawxiid tàmbali ko nguur gi nga yorit yaa ngi ci ñaari anam yi lenn li ñi ko yoroon dañoo folli ku nga jot ci suñ borom a leen folli leneen li ñi ko yoroon suñu borom a jël seeni bakkan mu ñëw ci say loxo ne ko ñaari anam yooyu faw benn ci ñaari yooyu ci la ko suñu borom di jëlewaat ci say loxo teg ko ci yeneen loxo faaw bis ñëw mu folli la jox ko ñeneen wala mu nga jóge fi nga faatu mu dem ci yeneen te xam ngeen sàmbaloo bi dafa mujj folli ko yóbbu nañ ci géej gi sax ndeysaan loolu di wane ne euh, li waa ji rëy rëy daraja mi ngi koy fàttali ne ko nguur lu mu rëy rëy it suñ borom kese moo koy joxe moom képpit moo koy moo koy dindi ci loxol ci loxol ku mën a doon bi muy jógee baar yi di dem ci di dem Ndar suñ Basiru nettali na ne am na ku ñu doon wax Soose Sow moo jiite woon policiers yi ko jël si woon moom sëñ bi bokkut ak Leclerc mi nga xam ne français la nee na Soose moo nettali ginnaaw bi ne moom senegale la xëy na am na tuuti yu baax xam na taw feex nee na bi sëñ bi bi ñuy dem jóge Louga safurla jóge Kokki jëm luga jóge dig digal boobu daal jóge jeewal jaar ko jaar fi jaar dem duga neena na sëñ baa ngi war ci fas mu xol te xamna li tuba yi di wajjal sëñ bi te moy jël bakanam lañ fasiyene neena mu xol ko ak mbax gi xam ci sëñ bi yalla mom daw dal mu gawal aw fasam tuti ba tolo mom ne ko sëñ bi neena moy biñ jubé luga jubee ne ko sëñ bi lo xam ci ak ñaan wala ak muslay nang ko tari te xamne jub nañ noni te yéen ju bon lañ am ci yow neena na sëñ bi ne ko mustaxilun ala llaahi xayrul xudur tegu ci benen baat ne ko suñ borom mënut lu fekkee mbir mi suñ borom du ko wuute nee na ñaari baat yooyu la ko suñ bi wax daal di nee na mu bàyyi ko mu dem nee na mu toog ba yàgg mënu ko muñ daal mu dabaat ko waxaat ko suñ bi waxaat ko loolu mu dabaat ko ñetteelu yoon bi mu waxaat ko loolu xam ne suñ bi la si danaan inna allaha laa yajizu wala yaxib suñ borom dara tëwu ko te du wuute dara soo see nee na jaaxal na ko daal ndax yërëm na suñ bi wax dëgg te suñ bi faalewu ko nee na ba ñëwee ba Louga nag xam nga Louga fi la jëlee train gi ci jëm Ndar nee na biñ nekkee ci biir train nag mu ñëw ba tolloog sëñ bi ne ko man de sëñ bi euh, dama la daboon doon la wax ne la na nga loo xam ci muslaay loo xam ci léemu na nga ko def ndax jege nañ noon bi tey dama ko wax rek ngir yéene la lu baax ak ñeewante la te li nga ma tontu daal jaaxal na ma nee na sëñ bi ne ko loolu li muy firi mooy ne suñ borom mi ngi teew te lépp lu am moo ko dogal te bu dee lépp lu am moo ko dogal nag jaam bi nga xam ne dafa gëm yàlla li ko war mooy lépp lu suñ borom dogal mu nangu ko te am ci xol bu sedd ne ko lii am nii ngeen di ma jiital nii di ma yóbbu lu sedd sama xol la te gërëm naa li ko suñu borom defee ne koy te xam naa ne noonu yi mën a luñ ma dara ne ko te sa waa jooju ngay tiit ñu naan amiru ndar mbindeef la ni mbindeef yëpp lépp lu suñu borom dogalut mënu ko ci man te boobu ñu ngi ko escorté jëmee ko ci ñoo xam ne pare na ngir mu ñëw ñu jël bakkan suñ bi di indiwaat tawxiid moom ci dundam di wax ne lii di am xam na ne suñ borom képp moo ko moo ko dogalee nii te fekk mi ngi dogal ne dana dund dana mucc dana mucc xam ngeen ñaari rakka yooyu mu julli woon ci géej gi ci biro bi ca Ndar tawhiid gënu koo kawe ndax de moom day ñaari rakk yu mu baaxoo julli rek fu mu dugg julli ko foofu mu dugg gis ne suñ borom moom fépp mu dugg julli ko waaye lu ne mënoon na ci am fi mu ne mënoon naa sëgg bañ a sëggi te dëgg-dëgg nag lu ne mënoon naa xaw fi mu ne waaye tawhiid ju mu am ci suñu borom moo tax sóolaalewul mboolem ñi mu fi fekk ñëpp mu sëgg julli xam ngeen am na yoon wu mu ci bureau bi ca Ndar sax te kaaloo woon kaalam googu te kenn ci ñi doon sibooru tubaab yi ne ko dindi sa kaala gi sëñ bi bañ koo faale mu ne ko dindil kaala gi fii kenn du fi kaalawu benn mbaxana moo fi am bu euh, gouverneur moo ko sax sëñ bi ne ko dindi ko ñu joxoñ benn gendarme ma ne ko dindi ko waaye waa ji bi mu laalee dañoo gis tabax bi commencé nga ñu nag bàyyi leen bàyyi leen mooy bàyyi leen ñu bàyyi mujj gi ñu ngi doon wax ne am na lu ne ci bopp bi bu leen laal bopp bi daal ci bopp bi li ci moom féppam la nekk loolu day wane rek ne tawxiid ji naka jekk dafa sax ci moom maanaam genn nguur la la nangu te muy nguuru suñu borom gi gisul geneen nguur jamono jooju mu nekkee ndar sëñ ma Lamin nettali na ne mag yi njàmbur yi dajale woon dajawoo woo nañ ñëw ci moom sëñ bi ñenn ci ay kilifa ñu bëgg lu baax yéene ko lu baax ne ko bëggoon daal nga may ñu ñu wax ak gouverneur tinu la ci moom mu bañ laa mu bàyyi la daal donte dalay bàyyi nga ne fii ci dëkk bi ndar nga ne fi mais ñu wax ak moom nee na sëñ bi ne leen xallu bayni wa bayna bi huwa arfau bi minkum wa aalamu bi ma huwa al aslahu li ne leen bàyyi leen maag sama borom ndax lii ma nekkee suñu borom yëg na ko te ni ngeen ma ñeewante bay wax ak man suñu borom moo ma gën a ñeewante foofu kon bàyyi leen maag suñu borom rek delloo leen ca Seydina Ibrahima la mu waxoon bañ ko tàmbalee ca sawara sa malaayka yi bëgg koo xeetali mu ne leen xam gi ko suñu borom xam rek xam ne mi ngi ci lii doy na ko sëkk biñ ñëwee bëgg koo wax loolu moom sëñ bi dana leen bàyyi leen noonu ndax suñu borom xam naa ne xam na ne maa ngi fii te lu ngeen ma yërëm yërëm moo ma gën a yërëm motax digënté yoy yëpp limi nekk ci xat-xat njabol gi jaxlé bind yim ci bind bo ci dello da ngay gis ne léppam da koy dello wacc suñu borom ci tawhid ju mat sëkk gis ngeen asiru fa akrim bihi rabban nafaan yalida wa saqal munali wal janabu haqiru ghanitu bihi rabban waliyan yaqulu li marami wa inni shakirun wa faqir day wacc bo fu mu toll di sant suñu borom di walé ne taraxul na ci kanamam buma dimbalé dimbalewut aw ma dara luma xagn duma ko am luma bëggin mom dong moo ko mëna jox waaye tawxiidi sëriñ bi mësta dañ ci moom gis ngeen bi mu ñëwee ba ndakaaru di bëgg dem ci géej gi laata loolu sax bi muy jógee bi muy jógee ndar di yéeg ci train gi xam ngeen ci alxamis ji la jógee ndar dem Dakar fanaan fa alxamis ajjuma ajjuma mu xëy dugg ci gaal gi samedi mu dem ci géej gi alxamis jooju bi muy jógee ndar am na ku ko gis koo xam ne mujj gi daa ñëw daa ñëw jébbalu ci sëñ bi sëñ bi jógee ci géej gi nee na dafa gis bi sëñ bi dem sëñ bi ne murid tàllal leen ma ñu tàllal kooku jóge fa am ci comme dem keneen ne ko sa mbokk mee ma gis de ñu koy yóbbu ñaar yi ma lay bëgg a wax moom benn ngi si xam naa ne fit wa rëy na wala am na lu mu xam moom ndax ku ñu yóbbu di la sànq nga naan tàllal leen ma ñaanal leen moom loolu xamuñu ko li ñu xamul ma ñaanal leen ma dem ma dem ci jàmm ñëw ak mu dara rek day wax noonu rek waaye bi sëñ bi ñibbisee jigéen ci ba léegi ka waxoon loolu moom dafa dem ne maa ngi jébbalu ci sëñ bi moom na moom man maa ngi dem jébbalu si di wane ne tawxiid ji moom mësta dañ ci moom sëñ bi sëñ Basiru nee bi mu nekkee dakaar ba train gi bëgg a nee na sëñ sëñ sëñ Marouba Guèye nettali na ko ne man bokkoon naa ci ñi gunge ji woon sëriñ bi bi muy dem ci géej gi ñu ko gunge ji maanaam ba Dakar xam nga Dakar am na fa nekkoon taalibe ñoo bi sëñ bi départ ña fa nee ne ko bokkoon ci ñooñu waaye sëñ bi bi gaal gi départ li mu wax mooy yéen mbokki taalibe yi dellu leen te sax ci topp yàlla te xam ne dénk naa leen suñu borom mi nga xam ne mosuma koo dénk dara ba am ci lu ma naqari ne leen lii ma fi baax ak xat sax du ci damm damay dem te dinaa ñëwaat fekkaa leen fi jàmm dem leen te sax ci topp yàlla dem leen te ngeen sax ci topp yàlla suñ basiru tegaat ci ne Cheikh Ibra Fall loolu la ko sëñ bi wax da ko ne dem leen te sax ci topp yàlla te xam ne daa am lu may liggéey loo xam ne faaw ma dem ci liggéey bii mu doo ko sotti te bu ma ñëwee ñu bokk ko ñun ñëpp waaye ni may demee noonu lay ñëwee xam ne loolu sëñ bi junñu na ñëw Cheikh Ibra Fall googu wajaahu fi fulkihil mashhuni muriduhu ay fatam mamhuni wa waada al murida summa rajaa ila al jazirati bi xalbin wajaa Cheikh Ibra Fall xam ngeen ko sonn ci mbirum sëñ bi la rawatina ci mbirum géej gi ngir bëgg sëñ bi ñibbi si jàmm loolu lépp di fësal tawxid ju réy ji nga xam ne sëñ bi mës ta jug ci moom koo xam ne ñu ngi lay jëlee fii te bi bi gaal gi di départ Dakar moom sëñ bi xamul fu mu jëm bi mu leen di wax ne ne danaa dem danaa ñëw moom xamul fu mu jëm moom ci boppam moom ndax nee na dem na ba Conakry benn waaye ko fa nuyu dong ne ko dégg naa Gabon nga jëm mu doog a xam ne moom nga Gabon la jëm ñoom sëñ bu Buso ñi mu fi woon gaaw ji fi sëñ bi jógee gaaw bi delsi na ba ci dibeer ji ñu bind ab bataaxal di ko yónnee Cheikh Sidiya fekk ba gis naa ko di ko wax ne ko sëñ bi ci gaaw bële lañ ko fi jëlee woon te xamuñ fu ñu ko yóbbu maanaam ñi mu fi bawoon def nañ fukki fan te xamuñ fu ñu yóbbu sëñ moo tax gis ngeen ginnaaw bi ñu tàggee ko fi ne leen sëñ bi génn na àdduna am nañu ko gëmoon ndax yan woon na maanaam mu mu jóge fi ndax daan nañ yóbbu ay nit te ñëw te yóbboo nañ ko te xamuñ fu hmm. ko fi jëlee xamuñ fu mu sëñ Mbàkke bi soo bind ci leeram ne ko yóbbu nañ ko euh, bilaa mu'misin wala muraafiq amul kenn ku mu àndal lu dul gaalam yu diis yooyu muy yor rek la yor gaalam yooyu nga xam ne moo ko doon ŋabal boppam fu mu jëm ndeysaan gaal yu diis yoo xam ne waaw mu ne leen bi muy dem sëñ Mbàkke waxoo Cheikh Sidé ne ko sëñ bi yóbbu nañ ko àndut kenn du taalibeem du mbokkam du kenn ku ko jàppale xana galam yu diis yooyu rek ci ko xamne du du ben way lañ fekk fi ci mbedd mi ñu jël ko seigne touba la wax ku jité mbolo ku xal siratul mustaqim wo ci mbolo ngir xettali leen tay ëlëk ñu fekk ko ci biirum njabootam ne ko coppet jël yob te kenn waxut muy wax waxi tawhid yoy noonu waye suñu borom bu fayé rek ñu xamne fayna xam ngeen julli gi mu julli ci biir géej gi ci tawxiid dong la ko defé neena bi mu koy def xamutone sax xamutone lu ko ci fekk julli jot na ya ca xew-xew ca mu sànni der bi ci géej gi julli suñ borom suturaal ko mu julli yéegaat waaw wa fil yammi sallal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raakian xayra saajidi loolu sëñ mu laay bu sa wax muy julli taksaan googu mu ci julli nee na bi mu ñëwee ba agsi ba agsi Conakry ci la dajeek ci la dajeek euh, benn benn sénégalais boo xam ne Saalum la dëkk waa ji nuyu ko ne ko man kat damaa dégg ñu ne yaa ngi ci gaal gi te dañ laa jëmee Gabon ma ne woon naa la ziyaara nga ñaanal ma soog a jàll dénk ma dénk ma soog a jàll sëñ bi nee na ci kooku laa njëkk a déggee baatu Gabon moom ci jàpp ne la ngaa def te xamoo loo def ndax defoo dara ñu génn la ci réew mi dala yóbbu te xamu xamoo sax fu ñu la jëmee sa waa nee na nee ci kooku laa njëkk a déggee ne Gabon lañ la waaye gis nga li muy xat-xat sëñ bi li mu ko dénk mooy kalimatu tawxid mooy li mu ko fili mooy laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah nee na ma ne ko sama mbokk xamal ne laa ilaha illallah mooy képp ku jaamu yàlla képp ku jaamuwut yàlla bu ëllëgee da nga xam ne mooy na nga xam fépp foo jëm na nga xam ne laa ilaha illallah ne ko ndax képp ku jëm ci ku jublu kenn ku dul yàlla bu ëllëgee yowmal xiyaam dina xam ne laa ilaha illallah te it képp ku jëm ci suñ borom te jaaree woo ko ci muhammadun rasulullah ci yoon yu ko yónent bi rëddee maanaam bu ëllëgee da nga xam ne muhammadun rasulullah ne ko loolu mooy laa ilaha illallah muhammadun rasulullah li muy xat-xat kalimatu tawxid la koy jàngal ci xat-xat yooyu nga xam ne xamul fu mu jëm yow moom ku ñu waxoon ne la fi mu ne njaañ lañ la jëmee te xamul fu njaañ jëm féet donc da nga tiit bi ñu ko nee gabon maanaam ñëw fi naan waa ji fu gabon féetee ak mu mel néew ci yooyu da ko ne xamal ne laa ilaha illallah muhammadun rasulullah diggante bi mu nekk ci géej gi yëpp ci ci noonu la fa nekkee xam ngeen xasida ak alaa inna ni usni li tax sëñ bi taalif ko loolu yitte jim joxoon tawxiid feeñ na ci lool ndax nee waa ji nekkoon foofu te jiite gars yi da koo digoon ab gët parfum joxu ko ko nee na waaye fàttewoon naa ko sax bi ma ko jox ndax bàyyiwu ma ci xel te waa ji moo jékki-jékkoon dikk nee na waa ji nekk am na keneen ku mu ko dikk kooka nag mujj di ci xuloo waaji yaa ma ko digoon ba nga xamee ne waroo doo ma ko jox waroo ma ko dikk ñuy xuloo noonu sëñ bi nee na maa ngi dégg ñuy wax ci Mayumba nee na mi ngi dégg ñuy wax donte olof yi ñuy wax setut waaye nee na géej naa ci réew ma nag ba sama xool yëngatun nag man nam mu nag réew ma nam mu gaañi nag njaboot geeg ñu fi suñ sëñ Basiru ginnaawam la gën a àdduna bi mu ñëw daanaka fekk na muy bëgg a mokkal nee na mu mu loolu daal nag waaye waa ji nee na ma sant suñu borom ci kii ni kii kii di ci xuloo ñu ko ko diggee woon lañ ma ko diggee woon ma te man yëgalu ma ko sama ngir wóolu ma wóolu suñu borom rek nee na ma sant suñu borom ci loolu nag tax nag ma jël sama xalima ne naa bind ak xasida daal di tàmbalee ne suñ boroom julli ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko samay noon di say noon ñoo ma sànni fii ci géej gi tey ñoo ma fi sànni niñ sànne woon sa xalil sa xarit ba Seydina Ibrahim nañ ko sànne woon ca sawara sa bañ ko fa sànnee nag yaa joxoon ndigal sawara sa ci ne ko bu ko lakk ba mujj mel ni aljana ci moom ne ko kon maa ngi lay ñaan yow suñu borom ci barkeb weeru koor yu ñu ne di la ñaan ci barkeb loola nga waxee nga joxewoon woon ndigal sawara sa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci nga tàggatal ma géej gi tàggatal ma waa géej gi tàggatal ma mbooleem samay noonu ñi nga xam ne ñoom ñooy say noonu te maa ngi lay ñaan nga bëggal jullit ñi ci ñu dégg ma baa ñu gis ma baa ñu dajeeg man ca réew ma maanaam naa ñibbi léegi ci lu gaaw ci ñibbi boo xam ne du ma ci am benn jafe-jafe du ma ko sax sabab la daal di bind xasida gi nag ala innani usni ala xayri munami wala ashaki lil xalqi min faqdi anami na ngeen yëg ne kat maa ngi tagg suñ borom mi nga xam ne mooy ci gën a mën a joxe ay xéewal te man du ma jàmbat ci mbindee fi mukk sama ñàkk dara du ma leen ko jàmbat fa man zannani fi gurbati zaata zalluli ila xayri mugnin waasiin fa huwa xataami géej gii ñu ma sànni ma defi tumuranke ku fi yaakaar ne danaa dem ci kenn mel ni mbindeef di fa toroxal sama bopp ngir di sàkku ci moom dara na nga xam ne gumba xool dal na la ndax du am mukk lool li rabbil tijaa'i fi xuduuri wa gaybati wa bil mustafa ashku lahu ni'ma sullami nekkat ci suñ boroom rek laay dellu bu ma nekkee fa ma dëkk ak bu ma nekkee ci àll bi te ci si ci bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek ci laa koy jaaree xam ngeen diggante bi mu nekk ci géej gi yëpp li muy xat-xat fi ne booy dellu ci mbindum sëñ bi doo xam ngeen li ñu xamoon ci mbind mooy ku bind mbind boo jàng mbind mi danga ci déggee ne kii kat ci jamono jii la nekkoon maanaam bu dee fi mu nekkoon fu neex la dana feeñ ci mbind mi bu nekkoon ci ay jafe-jafe dina ci feeñ ba mu des mbindum sëñ Tuubaa yim bind ci fi mu gën a tumurankee yooyu moo gën a niru yu mu nekk ci xéewal yi gën a mag yim bindee ci géej gi mooy gën a niru ne xéewal yi mu nekkoon sax moo gën a yaatu bi mu nekkee njaareem te fële ku ne xam ne dafa tumurankee woon waaye bu ciy wax noonu lay def gis ngeen yaazal busharaati nga xam ne ci ñetteelu kooram la ko bind ci géej ci korité korité yaa xayra defeen la bind ci koor gi bi ñuy wari mu bind yaazal busharaati man xaala li man xaala li xablu anta al yawma muqtaribun inda nasara zawi al asyaafi wa sumari jawaabuhu xasbiya allahu alxasibu huna wa huwa wa huwa alxafizu allazi yugni an zumari képp ku ma daan wax ne dañ laa dañ laa sànni yaa ngi tumuraanke ci àll bi maa ngi koy waxal ne maa ngi koy wax ne ko kat fii ñu ma sànni suñ borom doy na ma fi te doyloo naa ko fi sëkk te mooy ki nga xam ne mën na maa musal ci mboolem tubaab yi mboolem yi ñu àndal gis ngeen xasit ak wasilatu rubox ci yim joxoon maam Cheikh bi mu ko fekkee ci géej gi la bokk wax ci ay wax yu doy waar ba wax sax ci ku ko am rek dana am nangam wasilatu rubox moom yu mel noonu la ci wax si suñ borom ne ko kat fas naa yéene sama loxo duma ko tàllal kenn ku dul yow suñu borom tàllal naa la ko nag soo ma joxee maa ngi lay sant soo ma joxut maa ngi lay gërëm te dinaa ci boole muñ ne ko joxe ak xañ leer na ma naññ ne ci yow dong lay jóge jógewul ci kenn ku dul yow lépp loo ma jox xam naa ne loolu mooy li gën ndax yow ku gën nga te ku gën lu baax dong lay def ne ko lii daal li nga xam ne moom jàpp ci yow moom laa njott ci yow de ko njottuma ko sax mooy li wér pëng ci yow te yow xam naa ne ak mbaax ci yow la dëppee nawaytu anni laa amuddu li ahad siwaaka sarmadan yadiya yadaya ya ahad يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمن والعطاء خطا منك لا من سواك ورضيت عنك فكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء منك من دير لب لو ما جاتك لو باخلا دا خمنا ني كو باخ موم لو باخ دا نجي جيت موم هذا الذي أظن بل أحققه فيك وأنت بالجميل الأليق نكو كات موي مو ليغا خامني موم لا جوتو تي ياو جوتو موكو صاح موي ليغا وير تي ياو noonu la sëriñ bi mos a nekkee ci géej gi tawxiidam mos a yëngatu benn yoon bi mu ñëwee ñibbisi it bi mu nekkee daarul mën naan sëñ Bachir nee na keroog bi ñu koy génnee di ko yóbbu gànnaar bi ñu koy nee na kenn ci seex si ku nee na ko ñu ngi lay ñaan sëñ bi sëriñ bi ñu ngi lay ñaan ngir yàlla dimbali ñu ba may ñu ndigal ci ñii di ñëw di la song si ñu jox ñu ndigal ci ñuy xeex ñu ñëw bañ rey leen ñoom ñëpp wala ñun ñëpp ñu faatu benn yoon nga xam ne bu ñu la fi jëlee duñu fekk moom sëñ Bachir nee na sëñ bi ne leen inni lam arju sadiqan wa lam axaf aduwan wa zimaami bi yadillah ne leen lii ma ne so yaakaaruma ci xarit bu ma ci dimbale ragaluma ci ab noon te sama mbir ci loxol suñu borom képp laa ko teg te boobu tur yaa ngi jëm si taalu man nan moom ngir di ko attaqué si murid di ko wax lii mun leen moom nañ ko bàyyi ak suñu borom rek nañ ko bàyyi ak suñu borom kon lii ma wax yépp buñ ko xoolee danañ ci gis ne siñ bi li ko dalee ca ba fi suñu woon sali doog a jóge ca xaaloo li yarkan ba nim ñëwee ba daalul man naan wax ji mësta soppiku moom fi mu teg suñu borom mësta soppiku dem ci géej gi taxul mu soppi ko nekk ndax taxul mu soppi ko nekk maa yomba taxul mu soppi ko nekk li mu doon wax ci Tuubaa gii bi muy sanc bi muy bi mu fiy bañ ko yóbboo Gabon moom la doon wax ko indee njaareem loolu la mas di wax mos cee jóg mës ta moo tax gis ngeen jotaay boobu amoon ci diggante Sëñ Fallou ak Cheikh Fall ci njaareem ñu ne sëñ bi tegal leen ndab dugg ci biir ndabam yooyu mu doon joxe nga xam ndab yi léeg-léeg day lënd ak yooyu yëpp wax dëgg da ci yeneen la ci jublu moo tax joxe ko dugg ci biir eh, sëñ Fallou ne sëñ Cheikh Fall Cheikh Fall joxe ngant nangu ta bokk ak moom ngir màggal ko sëñ Fall di barkeel ba yàgg mu siggi xool Cheikh Fall joxoñ ko sëñ bi ne ko yéen ñi ko xamoon démb ca Mbàkke Kajoor ak tey ndax am na lu soppi ko ci moom nee na Cheikh Fall ne tekk ba yàgg mu ne ko su fekkee am na lu soppiku daal xam naa ne mooy bu njëkk karaw gi da ko daan bàyyi muy sëq te léegi da koy wat ne loolu dong laa xam ci lu sopp ko ci moom waaye leneen sopp ko ci moom sëñ bi dara mës a sopp ko ci moom gis nga Antoine Lefebvre moomu tubaab boobu bi muy bind rapport bi wax na ne sëñ bi ne ñun kat dañoo juumoon ci mbirum sëñ bi daani waaye gisin woowu ñu ci amoon it buur yi nekkoon ci réew mi ci njëlbeen gi loolu lañu amoon ci moom mooy jàpp ne kuy kuy wut nguur la daane nag ñi gën a juum ñi gën a tooñ mooy ñi jàpp ne benn jamono siñ bi dara lu jëm ci àdduna wala wala bëgg nguur mas naa ne ci xolam waaye nii mu mel naka jekk noonu la ma sa mel kon sëñ bi moom mësta jug ci ay principe yooyu yëpp nag teewut tawxiid jooju da daan woote ñëpp la ci daan woo jullit ñee ñi ci dul jullit ñi dul jullit rek ba ñi doonut ay doomi aadama sax da ci daan woo daan na woo jullit ñëpp ne leen luuzu bi luuzu bi rabbikum ma tawxiidi wa sunnatil mushaffail waxiidi na ngeen làqu ci seen borom te jaaree ko ci tawxiid ak sunna sunnatu bi sallallahu alayhi wa sallam ba woo sax ñi nga xam ne ay tubaab lañ muy yéefari muy yahuudi ak nasaraan yi yaa ayuha alyahuudu wannasaara baraztum almuntaqima aljabaara subhaanahu huwa alxalimu walsabuur bi xilmihi baarazahu kullu kafuur yéen kat maa ngi leen di woo yéen yahuudi ak nasaraan yi yéen a ngi dëkk seen borom da ngeen xam ne suñu borom nag ku ko dëkk rek ak ak laabirama tax da koo neex daal ku ko dëkk rek da koo neex ne la nag inna ilahakum ilahun waaxidu wa ma lahu min waladin aw waalidu lahu sama wal ardu wal hawaau yafalu fil jamii ma yashaaw na ngeen xam ne que seen borom kenn la jurut kenn kenn juru ko du ñett benn dong la na ngeen jàppee seen borom noonu waaye géej gi sax daan woo doomu aadama yi waaye géejug Maayomba sax mu di ko woo ci tawxid ayaa baxru waxid laa tusallis fa rabbuna taala an taslisi akrim bihi rabba yow géej gi kat ñi ñu wër ñëpp ay yéefal la ñuy bokkaale suñ borom man maa ngi maa ngi koy kennal di la woo yow it na nga ko kennal te xam ne suñ borom du ñaar du ñett waaye benn rek la waaye yemutoon ci daa leen ci woow it dafa mujj sax di sàkk ci suñu borom ne ko na ko seeral tawxid mu am di ko ci mboolem lu suñu borom bind washar leel yow ma bi kaw abdaka xadimahu inda jamii jundika maa ngi lay ñaan yow suñu borom nga seeral ma man kat jaamu bu yàlla laa liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo yahud yak nasaraan yi ne leen bu ëllëgee na ngeen ma seeral loolu inni uxaatibu nasara turra fi ardihim li maliki tayaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi maa ngi woo yahudi ak nasaraan yi maa ngi fii ci seen biir tey di leen di wax ak ñoom maa ngi leen di xam ne na ngeen di leen xamal ne na ngeen yëg ne man kat te yaqanu bi annani lillahi abdun jaamu bi yàlla dong laa xadimun li rasulillahi di liggéey kër bi yonente bi salaa sallam tamit wal tashhadu liya bi xawliya maa yowman jamia yowman jamia al alamina jamaa allahu rabbi zahiran wa batina xaysu akunu raxilan aw qaatina na ngeen ma seeral bu ëllëgee yowmal xiyaam ne jaamu bi yàlla laa ci lu nëbbu ak ci lu feeñ fépp fu ma mën a ne moo xam maa ngi tukki moo xam maa ngi fu ma dëkk fépp fu ma nekk maa ngi ci loolu jaamu bi yàlla kese laa te ci loolu laa leen di woo ne leen na ngeen ko seere bu ëllëgee yomal xiyam wax mbooleem mbindeef yi jamonoonteel ñëpp ne leen na ngeen ma seeral loolu yéen it bu ëllëgee yaa jumlatal xalq ashhadu li yawma fihi yaxuusul mujrimuuna lawma bi kaw niyat daarayni abdallaahi abdihim ni abdillaahi mbooleem yéen fi yépp maa ngi leen di woo ci na ngeen ma seeral bu ëllëgee yomal xiyam ne jaamu bu yàlla laa di liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muhibba kulli muslimin wa muslima mubrida kulli mujrimin wa mujrima ne it na ngeen ma seeral ne it képp ku di jullit fu mu ne bëgg naa ko bokkoo naa ko képp ku jàdd yoone fu mu ne séquñu dara man ak moom ne lii nag bañ ci am sikki saaka tax mu ne bind na ko katabahu ahmadu za salaati ala nabii faiqi silaati bind ko signé ko ne lii ahmadoo ko bind di julli ci sangam bi di yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam sëriñ bi foofu la nekkoon ci tawxiid ba di ko seereloo mboolem lu suñ borom bind waaye nag loolu suñ borom mujj na ko nangul mu sant nag moom sëñ bi ne léegi kat samay téere malaaka yi ma suñ borom booleel weer yi géej yi yëpp ñu ngi may seereel na jaamu bi yàlla la kutubi maan wal kaatibaani shawahidu lii wa shuhuru maan bisa maal bahrayni ne samay téere malaaka yi ma suñ borom booleel géej yi weer yi jamono yëpp ñu ngi may seereel ne jaamu bi yàlla la bu nangu njaam bi loolu xam ne ñu ngi ci xasi dëkk phase xilaam yi waxoon na ci asiru sax lu mel noonu shuhuri wa ayaami gadan li shawahidu bi kaw nii abdallahi wa huwa shahiru samay weer samay bis bu ëllëgee yomal xiyaam dañu danañu ma seereel ne tawxiid bu mat sëkk mi ngi ci man nangu naa njaam gi dox sama diggante ak suñu borom daan ne wa huwa shahiru te loolu nag ku suñu borom defal tawféex rek xam nga ko kon yooyu yëpp day fësal mel na ne waxtu mi ngi jege di fësal solo si nga xam ne sëñ bi joxoon na ko tawxiid ci ab dundam waaye noonu it la ko daan saxalee ci biir taalibe yi gis ngeen kooku ñëwoon ànd ak ab jaam ànd ak kenn ne ko kii sama jaam la ne ko kii de dama ko indi ndax sama jaam la ko jox nee na sëñ taxaw xam na xam na loolu ci fiq ak waaye leneen la bëgg a def ci waa taxaw ne ko soo ko moomee de moomaale ma man mii ndax ñoo bokk borom soo ko moomee moom mii moomaale nga ma man mii ndax man ak moom ñoo bokk borom ngir bëgg a dindi biir wax gis ngeen kooku ñëwoon da nga xam ne mbërum làmb la sëñ bi yàble ne nañ ko yóbbu ci armée bi mu ñëwee ndax mbër mi mel ne jàmbaar la woon mbër mi ñu daan sëñ bi ne nañ ko yóbbu ci armée bi mu ñëwee mu ne ko dem nga ba ñëw mu ne waaw mu ne ko noo def ak kaddaam ñi tëdd foofu suñu borom subhanahu wa taala ne ko kaddaam ñi tëdd foofu noo def moom mbër moom waaye yooyu yëpp xam ngeen euh, ba ci peste boobu amoon noonu sonaloon waa Njaaréem balaal waa kër gi dig nga suñu may jaxat bi nga ko bindee bayit yooyu a yeex a tontu ci mujj gi bi ko ne dama leen doon fàggu téereb tawxiid te mooy nag téereb tawxiid mooy rek ñëpp xam ne mbiri ci loxo suñu borom la ne xam ngeen bi mu laalee waa kër gi waxoon na leen ne leen da ngeen a jàpp ne ndax bis bu mu laal ba am ñu mu fàtti waa kër gi ñu bari mu romb leen mi toog waa daara kaamil yi ñooñu mu ne leen da ngeen a foog ne xejju bi yàlla mooy koo xam ne lu lu ko neex yàlla def ne leen déedéet yàlla dëgg mooy koo xam ne lu yàlla def mu ne leen te moom foofu la ne delloo si leen ci tawxiid ñu xam ne mbir yi nag ci loxol suñu borom la ne te dafa am yu tax suñu borom nekk suñu borom suñ ko bokkeek ak moom rek dootu ko nekk moo tax te daan na leen jubbanti ba ci wax yi gis ngeen daan na wax ne olof la day wax ne lëg bu lekkee olam na ko gën a mee coy mu ne loolu wax ju yàqu ndax yéene ji ci olo ji ci coy amoon bu sotti woon du wadd bay agsi ci suuf ba lëg di ci jot kon dañoo waroon a wax ne lëg bu lekkee olam na ko gën a mee yàlla ndax ci wërsëg la dellu di leen xamal ni leen wërsëg ci loxo suñu borom dong la nekk fi ne yooyu bu ñu ko wàcce woon ci suñu dund daf ñuy noppal lool ku ne ku am xam ne yàllaa la jox ku xañ ku ñàkk xam ne kenn xañu la yàlla dong la xañ kenn mënta xañ kenn nit ñi luñ la yéene mu dal la bu doon lool bu doon lu ñu yéene nit mu dal mu dal mu dal bu ku ne lu ñu ko yéene mu dal Sëñ Tuubaa lu delsi bañ ci jot hmm. Sëñ Tuubaa ñu fi jëlee woon fii amuñu woon yéene mu delsi loola bu sotti woon waxtaan wii moom du am tey moom tey deet lañ bëggoon bu amoon kenn du fi daje tey di waxtaan ci leneen la ñuy ne daan leen waxe ne leen xam ngeen loolu mu bindoon bind ñetti dara ne leen dara ju njëkk ji mooy suñ borom subhanahu wa taala mooy borom xudratu ak iraada ne leen te bu xàccee yarbakat kenn du ca tee suñu borom yaram bu ci xacce kenn suñu ci tee ne len dem len jaamul yàlla ko waxoon na len ne len aljana ben bour la amu yàlla te kuko jamu jaamu ci dugal rajaaw jannatin bila ta'ati bi sunnatin mahi ghururun yati tallahi laysa yanfau ghad shaxsa ghada inda hululi ramsihi gayrul huda sëñ bu yi nee na sëñ bi agon na fofu ba agon na ci loolu ba bëggutoon ñuy jaxase ndigal suñu boroom yi ak ay ndigalam ba daan wax ne fuñ nodd ji fuñ fuñ noddee nañ bàyyi lépp te dem julli ci suñu bésu neen léeg-léeg nag am taaliba bu bees bu ñëw ci kër gi boo xam ne xamut loolu ñu nodd mu wéyal di liggéey buñ jullee ba noppi suñ bi yëg ko kooku moom da koy digal ne ko na dem julli ci daal di wax yeneen taaliba yi ne leen bañ fi noddeeg léegi ñu fi defar nañ ko dindi defaraat ko nee na bu dee aw sàkket wala lu mel noonu dañ koy tiri sàkketaat sëñ Bass nee na bu dul lu mel noonu nag lu ñuy lekk wala yooyu danaan nañ ko génn saraxe ko ci biti waaye buñ ko buñ ko jëfandikoo ci biir kër gi sëñ bi foofu la nekkoon ci ñoom ci leneen leen laa taa'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq loolu nag wax dëgg suñu borom fay na ko ci fay na ko ci bu baax a baax ndax keroog bi mu fi jógee moom sëñ bi ñu jëlee ko njaareem indi ko fii ci Touba fii ci barab bi xam ngeen bi ñu ñëwee borom daal moo ci jóge daal moo ci sëñ Abdourahmane loo jóge ndaam sëñ Mbàkke bu su jóge Gédé sëñ sëñ ma Dumba ñëw sëñ ma Lamine Guèye sëñ Baara Khary Fall ñooñu noonu ñëpp rek ñëw sëñ Mahmoud Jaxate sëñ Adama Sall ak mboolem mag ñi ko teewoon xam ngeen lu bis bu mettee noonu yoonu murit mësu ko dund dootu ko dund fekkee nañ bi ñu yóbbu sëñ bi ci géej gi gànnaar waaye sëñ bi mu ñu wuy ji boromam ñëpp ñëw jaaxle xam ngeen bi ñëwee mag ñi li ñuy dëgër dëgër am na kenn ci ñoom daysaan ku xool jëmmi siñ bi jëmmi sëñ bi fuñ ko tëral ci wetu garab gi mu di ko xool di ko xool ba yàgg xel mi dem ci lu bari rek dem ci ne ci mbaaxu sëñ bi yërmande ju yaatu ji waaye coono yu métti yi mu dund xam ne fanweeri at ak ñett a ngi nii yoo xam ne ci loxoy tubaab bi la ne ñu koy fanaanal di ko yendal xamut fu muy xëy xamut fu muy gont fanweeri at ak ñett yu mujj ci dundam ci loxoy tubaab bi la ko sëñ Tuubaa ne xamut fu muy yendu tey xamut fu muy fanaan suba bi mu nekk njaareem gi mujj nañ ay rakkam yépp signé di ñaan joxe seen bopp garantie ci ne nañ ko may mu dem Touba def fa dem dem Touba te ñëwaat njaareem ñu bañ maam rakk yëpp signé borom daara moo signé maam Cheikh Anta signé suñ Balla Coro signé ñëpp ñu ne ñun ñooy garanté sëñ bi day dem ñëwaat ñu bañ ci jóge fee ñëw Tuubaa ji dong ci koo xam ne ba tey jii waxuñ lu mu def keroog bi ñu ko indee fii mag ñi di ko xool mag moom di ko xool ba teewlu yooyu yëpp teewlu mbaaxu ak sëñ beeg li mu daj xol bi jeex mu dagg ab gañ-gañ di bëgg a yooxu sëñ Mbàkke bu sa fette ko ne ko diw mu ne tekk mu ne ko xamal ne bisub tey jii moo tax ñu doon la kooku dellu si mbooloo ma dellu si suñu mel Lamine nee na bi ñuy denc si bi di ko denc ba defar lépp ba war a jekk-jekkal ci la julli jot suñ mbàkke ne nañ taxaw dem julli ji dañu waat loolu moo ne bi sotti na mission bi sëñ bi doon liggéenti boobu moom réussir na ndax moom da doon wax ne bu ñu noddee nañ bàyyi li ñuy def tey bi ñu koy waajal ko jébbal boroomam donte mës a jóg ci loxo boroomam bi ñu àggee foofu suñu mbàkke dane nañ ko fi baax te dem julli ji am ko nodd ñu julli suba ñëwaat àggale li ñu doon def sëñ Tuubaa lañ doon jébbal boroomam te léegi léegi léegi dara day xew sax ñu naan la moxtaar mi yaatu na moxtaar mi ku mu yaatu ak kañ la yaatu ak bu yaatoo ku mu yaatul leer na danañ dund ba moxtaar mi jeex te duñ dagg dara ngir julli léegi loolu di wane ne mission bi suñ bi doon dox suñ borom fey na ko ci bis bi mu fiy jóge rek leer na ci njabootam tawxid jooju mu doon woote ci ne mbiri suñu borom mi li moom buñ ko jaawale loolu feeñoon na ci biir njaboot gi bu baax baax suñ xam naa ne mën na maa tàmbalee tëj ndax waxtu wiñ ma waxoon mi ngi bëgg yegsi agsi na sax nag Euh, am na yu ma ci bëggoon doolaaye yii day yàq waxtaan yi sëñ ji li moom daa amul jël waaye yii yëpp daal jàll rek mën nañ cee déggee ne tawxiit lu munta ñàkk ci diine jullit bi la jullit bi tawxiit munta ñàkk ci dundam ngir mu nekk li ñuy woowee jullit bu mat sëkk ndax sëriñ bi wax na ne jullit bi bu doon kuy commerce capital bi mu yor di ci jëndee marchandise ngir mën a jënd ak jaay mooy tawxiit wax na ne lislaam bu doon jëmm la ruug nga xam ne moo fi ne ngir mu doog nekk nit mooy tawxid moo tax mu ne wa baadu fa tawxidu rasul maali wa ruuxu diinillaahi zil jalaali kon loolu lu mënta ñàkk ci tawxid la loolu leer na foofu waaye déggee nañ ci waxtaan wi ne serigne bi diggal na talibé ñu jàngi seen xam-xami diine waye bim ci jital nak moy bi ta'allum al aqaidi wa tawhid nañ jàngi tawhid te jangi pass pass seen digënté ak seen borom awwal wajibin ala al murid tahsilu zadihi min at tawhid kon loolu it lu mënta ñak ci taalibe yëpp ñu xam ko ne ñu jógee fii ku ne ci ñun na yittewoo xam tawxiid li ko ci war lépp mu xam ko làkk bu mu ko xamee baax na benn téere yi Sëñ Tuubaa yi ci firiwut ci wolof bëriwut ci youtube rek foo dem fekk ko sëñ sëñ Abdourahmane mu daalul maxt yàlla na fi yàgg te wér boo xam ne àgg ca jafe na ñi mën a bind ñi ngi ngi koy firi ci wolof di ko firi ci tubaab di ko firi ci yeneen ku ku mënul loolu lépp na xool ku mu dendal mu ko ci waaye tawxiid lu mënut a ñàkk ci dundub jullit la waaye it yitte ji sëriñ bi joxoon tawxiid feeñ na bu baax a baax ndax wax na ne moom fàgguteefam mooy tawxiid wax na ne diine mit mooy tawxiid yitte jooju mu ko joxoon nag feeñ na ci lu bari ndax daan na ko ñaan suñu borom di ko ñaan mu defal ko tawxiid ahadu habli afdal tawxiidi bi xurmatil musaffan il waxiidi maa ngi lay ñaan nga defal ma tawxiid bu gën ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko ko defalee yëg na xéewal gu rëy googu moom sëñ bi ba tax mu ciy sant suñu borom laka shukuril yawma bit tawxiidi yaa daa imal wujudi wal wuxuudi maa ngi lay sant ci tawxiid di nga ma defal yow borom nek gu sax gi yow borom wet gu sax gi waye it ndigal yu bari yim ci jox talibe yit fessel na lol yitte ji nga xamne mom moom sëriñ bi joxon nako tawhid li mu ci bind yit nga xamne tuddu nañ fi ñaar fukki téra ñaar yo xamne ci tawhid dong la jëm juróom ñaar fukki xasida ak juróom yo xamne ci tawhid dong la jëm lol di téméri manqué ñett yo xamne lolou ci tawhid dong la ko sëñ bi bind daanaka téméri bind yu jëm ci tawhid loolu mom duma ne amut waye néew nañu ko def téméré mbir yo xamné ci tawhid la ko bind te ëpp na ndax man yi ma xam rek la indi lool nak li ci wasaya ak li ci fatawa ak li ci hikam ci téré yu bokku ci ba ci sax xasida yu yu gàtt yoyu sëñ sëñ salih mu sëñ fàllum sëñ bu di génne ku koy top da nga ci gis yu bari bari yo xamné ne raqadiya la te yoyu bokku ci may wax wayé buñ délo ci ak dundamit gis nañ ay xew-xew ay tollu way ay bërepp ay jëf yu sëñ am yu bari yoo xam ne yittewoo gëm yittewoo woon tawxiid war na ci ne lii mu bind nii nga xam ne daanaka mat na téeméeri téere ci tawxiid buñ ko tegoon ci balance jël li sëñ bi jëmmal ci dundam duñ sax bokk lim jëmmal ci tawxiid moo ëpp fuuf lim ci bind du sax benn day day waxee fii nekk fële loolu fes na ci yittewoo ji nga xam ne joxoon na ko tawxiid waaye feeñ na ci it ne tawxiid jooju nag suñu borom defal na ko ci tawfeex ba wax dëgg bi mu fiy jógee it ñi nga xam ne ñoom la yar tawxiid jooju defoon na jeexi ci ñoom ba gis nañ meññin mi ba bu ñu fiy jógee rek niñ ko nettalee euh, taxawaay yu am solo yooyu nga xam ne am nañ ko ci euh, kon yooyu ma wax yëpp liñ ciy déggee mooy képp koo xam ne sëriñ bi ci moom nga njaboote ci ci njabootam nga bokk war ngaa yittewoo tawxiid war nga koo jox yitte sàmmoonteeg moom lépp loo xam ne day dàqoonteeg tawxiid moo xam ci pas-pas la wala ci jëf wala ci wax ci ay kàddu dont day doon loo xam ne wax ji mën naa rëy te doo ko jàpp sax yooyu yëpp taalibe yi war nañ ko wattandiku te dinañ am nag léeg-léegi nag léeg-léeg yoo xam ne soo ko tegee ci nattukaayu tax doo ko mën a dégg wala nga xam boog dëgg-dëgg fi ñuy waxee xëy na dee su ko dugal buntu bokkaale ndax it nag bokkaale faaw nit ki fas ko ci xolam ak yeneen ak yeneen waaye daal ngir benn la jullit war naa tax ñuy bàyyi xel ci ñuy wax ndax siñ waxoon na ko ci benn dénkaane ne boo nekkee ñoo xam ne charia dong lañ xam fexeel ba say jëf nga di ko natt ci charia daal ne nag loolu mën naa niru ngistal boo ko déggee noonu daal ne waaye du ngistal ndax yéene ji nga ci am yow mooy benn la jullit ñi su ko def su dee da nga ko def li taalifi xulubil muminin nee na loolu tuyaaba nga ci jële mooy ñi nga xam ne loolu rek lañ xam nañ yem ak ñoom ci liñ xam mooy am na luñ mën a waxtaane ci suñ biir ñun murid yi loo xam ne keneen ku ñëwoon doon seet si murid bi buñ ko tëbee te wax ko buñ ko leeraloon mën naa a xam li kon loolu it yu mat a bàyyi xel la ci mbooleem ñi nga xam ne dañoo bokk ci waa kër sëriñ bi ci seen doxalin ñu xam ne daal sëñ bi moom taxawaay bi mu amoon ci tawxiid fu ne ci kaw suuf mën nañ ko fa waxe xam ngeen Sëriñ Tuubaa moom bis bi mu feeñee Mbàkke Bawol ba bis bi mu génnee àdduna ci njaaree diggante boobu defu fi lu ñu nëbb Sëriñ Tuubaa diggante bi mu feeñee jamono ba bi mu wujjee borom defu fi lu muy nëbb moom li mu fi def moom mën nañu ko teg fii ci taabal yi ñu film na ñëpp xool defu fi dara lu muy nëbb loolu nag ku bokk ci kooku nag boo jëfee war naa feeñ kon daal euh, dafa mel ne waxtu wi ñu ma waxoon sax romb naa ko tuuti maa ngi ziare bu baax waa daayiratul Xadimatul Xidma di jégalu mboolem kilifa yi fi teew yëpp ndax gis naa fi wax dëgg yàlla samay kilifa dong ñoo fi nekk ñii samay waajur lañ ñii samay mag lañ ñii samay magi daara ñoo xam ne ñoom ñëpp rek bu ñu fi teewee man aw ma fi kàddu wax dëgg yàlla bu ñu fi teewee aw ma fi kàddu xam naa ne rek euh, nii lañ ko bëggee woon rek moo tax ñu jox ma ko waaye xeebu naa ci toog fii maa ngi euh, leen di jégal bu baax a baax di sant suñu borom di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm Cheikhul Khadim di ko ñaanal suñu borom dolli ay maanaam gën a barkeel liggéey bi mu fi ba ndax liggéey bu réy la fi ba nag suñ suñ Tuubaa may gi rëy na waaye njàmbaar gi nag rëy na loolu nag yi mu def moom du ci ay loxos la ko def du ci ay lijjanti la ko def waaye da cee sonn bu baax a baax a baax loolu nag dañ ko war di sàmm saa su ne eh, ñu ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha bi nga xam ne moo fi nekk jiita njaboot gi te mate ko sëkk suñu borom yàggal ko fi dolli ko kàttan dolli ko wér Euh, ba mboolem naa lii mu fas yéene liggéey Cheikh Khadim yëpp mu def ko ni mu ko bëggee maa ngi jéglu bu baax fii jege na lool barab bi sëñ bi ne wax dëgg waroon nañ fee nekkee leneen loolu di yëkkati ay yooyu waaye xëy na rek noonu la ko mbokk yi bëggee woon maa ngi jéglu bu baax di wax ne waxtaan wi lépp lu ci jub rek waa Moukhaddamatoul Khidma li ñu bëggoon mooy lu jub mooy lu baax mooy lu tege ci yoon lépp lu ci dëng nag ci man mii la waaye du ci ñoom ñoom lu baax rek lañ bëggoon ku ko wax maa ngi jéglu ñëpp tabaarakallah sona xaar xiin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waxtaan wi am na solo lool jot na sëkk itam mel na liñ ci doon yaakaar lépp gis nañ ci lu jot mel na ne xëy na waxtu yu moo jege lool bopp sax waaye soo gënoon a jàll itam dana gën a baax ndax li nga doon waxtaane muy tawhid muy wéetal yàlla nga indi ko ci ni ko sëriñ bi yittewoo woon nga xam ne jëmmi sëriñ bi rek daanaka buñ ko tuddee mën nañoo tudd tawhid ndax jëmmam ak léppam day dellu ci tawhid kennal yàlla ndax ku nekk xam ne ni mu wéetali woon boromam ni mu bàyyee yàlla ak boromam boppam jaar-jaaram yëpp li muy firndeel mooy kennal sunu borom loolu nag dikk nga ci waxtaan lu yaatoo yaatoo yaatu ginnaaw bi nga dikkee ci yitte ji mu ko jox moom sëriñ bi ak wàccuwaay bi mu ko jox ci biir ay téeréem wane ne tawhid mooy li ëpp solo ci ab jullit nga xam ne bu doon ab tabax la dañuy wax ne mooy fondement bi nga xam ne bu jiituwut dara du mën a baax bu doon jëmm la itam mooy ruu gi nga xam ne bu ci nekkut dara du mën a dara mën a sotti waaye bu doon kuy commerce la itam mooy bopp yi nga xam ne bu amul dara du mën a sotti ci biir ay mbindam soññee na ci bu baax a baax ci jàngale ci tawhid ci ni ko limee ci téere yi nga xam ne bind na ko jagleel ko tawhid dong muy téere yu baree bari ak téere yi nga xam ne da koo bind boole ci tawhid ak fiq ak tasawuf ci ni muy xaajee lislaam ci ñetti xaaj yooyu nga war ne itam ne xam-xam tawxiid ci boppam léeg danañ ko wax rek jublu ci xam-xam léeg-léeg danañ ko wax itam jublu ci pas-pas léeg-léeg danañ ko wax itam jublu ci melokaan yi nga xam ne moom la nit ki meloo nga indi ñu itam wàccuwaayu tawxiid ci lislaam nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woote na fukki at ak yoo xam ne tawxiid dong la doon jàngale muy lu ëpp ci ak wooteem ci dundam ci tawxiid la doon jàngale nga wane itam ne yonent yi yàlla yónni woon yëpp itam mel na ne leen yàlla yónni woon mooy ci tawxiid ngir nit ñi wéetal yàlla yàlla wax ci alxuraan ne yónniwuma benn yónente lu may rek nit ñi wax laa ilaha illa allah te jaamu ma man dong kon waxtaan yi jot na sëkk daanaka duñ ci doon lu bari ndax ni nga indee maraaxil yi nga xam ne moom la sëriñ bi dund ci zahir ci ak njëlbeenam ci euh, taxawaayam ci bi nga xam ne waajur jóge na fi ba nim demee ci géej gi ba ñibbisi si maraaxil yi mu jaar yëpp maraaxil bu ci nekk mën nañ faa jànge bind tawhid bu ma sëkk ci ni ko indee bind yoo xam ne bind yu yaatu lay doon ci jamono ju nekk ba ci xasida yi nga xam ne indi nga ko ci xaalul kan ci la ko sabab ak man sànna xayrullahi ak la ko sabab ak mbooleem jataay jaar-jaar yi nga xam ne jaar na ko ak diggante tubaab yi ci wéet gum wéet ci seen biir te wétt lu ko dara lu dul yàlla boromam nga xam ne ndër lay lim am ci seen kanam ba dellu siwaat dara lu ko lu dul wétt li ko sunu borom moo tax Abdullahi Salim waxoon ko ne ko mboolem li nga xam ne wax nañ ne def nga ko ci géej gi ci ay xeeti karaama am na ak amut am solo rek mooy ba ngay dem la la taxoon a ba nga dellusee ci yow awé sax demut ci yow te la nga nekkon ci nga nekkat bi sëriñ bi di nekk ci geej gi sëriñ bobu sekk ak sëriñ ba job te yalla dogalon ñu tuba bi yobul len gabam ba ko sëriñ ba yégee nee la ko ci metti won moy yalla day ñaan yalla ngir yalla bañ tuba bi natt leen lo xam ne dana mankel sen tawhid wala mu ko yaq ba tax sëriñ bi di ñaan suñ borom ci bayitam yoyé ya khayra xaafirin sunu bon makka ngir ñaan suñ borom samal leen sen tawhid kon day mel mom ci bopam lim doon jëmmal moy tawhid ci jëmmé bopam ci waxinam ci doxinam ci jëfinam ñi ko sëñ Basiir waxe ci ne képp ko xam ne miinoon nga kër ga da xam ne li fi am mooy lépp lu ñu defal sëriñ bi day fekk ñu def ndigalu yàlla ba noppi waaye suñ defagul ndigalu yàlla lépp lu ñu def ngir bàyyi ndigalu loolu da koy dindi ni nga ko waxee léegi naka noonu itam noonu la ci yare woon te yar gi mooy li nga jeexee wane ne suñu borom fay na ko jeexit ji ko fayee mooy wane ne kon ci tawhid rek la doon yare moom sëriñ bi kon dundam gépp wane ne wéetal yàlla la liñ ci war a jànge nag mooy ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo jàpp ci moom te mu doy ñu sëkk ñun waruñoo yem ci jàng tawhid waaye dañoo waroon kiimaan ci tawhid ci wéetal yàlla mooy ni sëriñ bi kiim taan ci tawhid ci wéetal yàlla ci wakirlu ci boroomam ci doyloo boroomam ci wóolu ko wóolu koo xam ne amul deng-deng nga xam ne wóolu gi mu wóolu suñu borom maanaam da ko wóolu wóolu koo xam ne lu ko ci fekk baax na lii lii ne ci kanamam du ko xalaat lu ko ci mën a fekk du ko ci xalaat donte ci saahir boo xoolee lu ne mën na ko caa fekk ci ci ci julli ci géej gaa ci julli ci bureau ba ca ak ci dajeeg noonu yaag waaye dafa wóolu sunu borom wóoluñu woo xam ne amul sikk sàkk ci wóolu gi mu ko wóolu kon ñun itam war nañoo mën a doon nag kiimtaan ci wóolu sunu borom ci am dëgg dëgg tawhid ndax taw tawhid moom mooy li nga xam ne jullit bi su ko ñàkkee rek euh, li wax euh, yóbbal bi mu war a digg am diggante boromam li koy jur mooy taw tawhid tawhid moo koy yóbbu nag ci moom xayru zaat mooy taqwa kon faaw ñu jiital tawhid wéetal sunu borom xam ne sëriñ bi loolu la nekkoon loolu la ñu digal loolu la ñu doon jàngal kon sëñ Maam Mor ñu ngi lay sant bu baax a baax ci waxtaan wi jot na sëkk wax dëgg yàlla kawe na njort te itam yaakaar naa ne ñu fi toog ñëpp jariñu nañ ci ñaan suñu borom rek mu booleñ ci allazina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana ñaan suñu borom gën a barkeel xam-xam bi gën laa kàttanal ba li nga yéene liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ak ci wàllu yëpp nga defee ci nu kaw sa njort waa daayira Muxaddamatul Xidma noo ngi lay sant bu baax a baax ci sa taxawaay ak sa jàppandi ci saa sunu la soxlaa ci liggéey bi xam ngir xam ngoo xam ne yéen bokk liggéey ndax liggéey bi ci ndigalu sëriñ bi rek lañ koy def te itam ci liggéeyu sëriñ bi rek nga nekk kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant itam mbooleem télévision yi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun di ko def direct ba mbokk yi di ko mën a seetaan fi ñu mën a nekk ñu ngi sant uh, waa MKTV nga xam ne mooy Muxaddamatul Xidma CMTV di def direct waxtaan wi ñu koy mën a topp ci Facebook bi ak ci YouTube bi waaye mboolem télé yi nga xam ne itam ànd nañ ko moom ak uh, réseaux sociaux yi koy jàllale ñëpp ngir bëgg njariñ li gën a yaatu ba képp koo xam ne mënoo jote fii ngir fekk waxtaan yi foo mën a nekk mën caa jariñu te wax dëgg yàlla ñu baree bari ñu ngi ciy di feeñal seen mbégte kon noo ngi leen di sant bu baax a baax ci yaatal gi tisaare gi di jot li mbokk yi rek na dem soom na yàlla bu subaa ci waxtu yi danañ fi dellusiwaat ci jotaay bu mel nii boo xam ne ci xam-xam rek la jëm ak jàngat suñu mbirum diine ak suñu mbirum dundin waaye suba ñu fas yéenee ànd ak sëriñ Mbàkke Abdourahman mu ñëw ci fatwa ngir tontu laaj yi nga xam ne ñoo fi rot ñoo fi rot ci euh, laaj yi nga xam ne mbokk yaa ngi koy yónnee di ko jaarale ci anam yëpp ngir ñu tontu leen seen laaj yi diine ñi koy ñi koy yónnee ñenn ñi nekk ñoo xam ne teew nañ ñenn ñi nekk ñoo xam ne teewuñ laaj yooyu nag ñu koy dajale fas yéene nit ñi lépp lu aju seen diine ak seen dundin lu ñu ci bëgg a xam ñu leeral leen ko bu subaak jàmm danañ ci ànd ak sëriñ Bakk Abdourahmane di borom mag boo xam ne ñëpp xam nañ ko kon ñoo ngi leen di jox dig daje subaak jàmm wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu